bu baax boroom kër gi di jëwriñu xalifa bi fii ci dakaar di sëriñ alxaaji Ahmadou Mbàkki yu fay di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal wér di ko ñaanal euh, ndolleen lu rëy ci liggéey bii muy def di ko defal sëriñ Tuuba di ko defal islaam yàlla na ko àggale fu féete kaw njortam di nuyu waa kër gi yépp nag jaar ci sunu nijaay sëriñ Seex Balla Coro sàmm nuyu tam sëriñ Jibril Ndaw mi yor programme bi nuyu sëriñ Mbàkke Mbóoj mi yor réalisation bi ba agsi ci yow sëñ Xaamidun Jóob ni ngay doxale émission bi neex jullit yépp neex taalibe yépp muy kenn du sëriñ bi li ma la wax rek sunu rakk nga sunu soppe nga sunu xarit nga ku baax nga ku yaatal nga yàlla la yàlla sàmm te jàppale la ci barke Cheikhul Khadim di nuyu bu baax sunu wejur wi nga dalal tey muy sag wu rëy ci lislaam di boroom xam-xam bu mag di boroom xol bu set a leer di ku bëgg yiw di ku rafeti kàddu di jëmm joo xam ne ñépp a ko sopp léegi laa ko wax ci biir ni ko soppeb sëriñ tuubaa nga te bu yowmal xiyaameet dinañ ko seereel sëriñ tuubaa ni sopp nga ko ndax feeñ na ci say kàddu feeñ na ci sa yitte feeñ na ci say déplacement feeñ na ci sa mbaax lu ñuy defal sëriñ bi nga feeñal ci sa yéene ci sëriñ Touba muy sëriñ arab bi ñas waaye nag loolu kenn ku xam du wax laa xarwa kooku bettul kenn waaw du jaaxal kenn ku xam ndax sa taxawaay ci sëriñ tuuba danga kaa donn ci sa wéejur wu baax wa sa wéejur wu tedd wa di maam xalifa ñas radiallahu taala anhu ku ne xam na ni wax na sëñ Tuubaa wax yoo xam ne yow waxagoo ko li sa wax yi rafet rafet yaag sa rakk ju baax gi sëñ Ahmed Khalifa Niass waxagu leen ba tey la seen wéejur wa wax sëñ Tuubaa ci lu rafet azka salaamin ka taami shadi birraa'i yanuubu anna wisaala raaxi birraaxi muattilan mu ne aska salaamin ka riixil miski nafxatahu muattiran bi nawaaxi shayqi fawaaxi shayqun naqiyun taqiyun aylamun alamun fama sanaa'i bi mutrihin wa amdaahi kon yow sëñ Tuuba at xaftanaa bi kitaabin laa nadira lahu urwa xalila sadana baada yi di dem ba mu yàgg nag mu mel ni ku xaal ji jàpp ko mu ni huwal jalalaani tafsirun li mansibikum misbaahu ilmin ka dawxi subhi lammaaxi kon kooku nu ngi la koy gàttandoo di kontaan lool ci sa teewaay bii di la ñaanal fan wu gudd ak wér di la yóbbante nuyoo ci sunu xalifa bu tedd ba Cheikh Ahmadou Tidiane di ñaan sunu borom dolli ko wér di nuyu nag waa kër meddi na Baay ak waa kër Léona Niassène yépp bàyyiwunu kenn di leen jotal sunu nuyoo di kontaan ci sa teewaay di la dalal ak jàmm ci sa biir kër di nuyu nag sunu soppe yii nga xam ni euh, dañ koy doore ci sëñ xaadim Guèye sëñ xaadim Kebe nga xam ni sama soppe bopp la daf ma bëgg lool te muy dëgg di sama rakk di sama soppe lu mu xewle ma dem ci lu ma xewle mu ñëw ci yàlla na ko yàlla sàmm defal ko fan wu gudd ak wér barkeb xasaa yi di yàlla ko bu gunge ci lépp ñépp a ngi koy bëgg taaliba yépp waaye di nuyu tam sama jeneen rakk ju baax di sëriñ Xaban Guèye bu Cees nit ku am yëg ci nit nit ku am dal ku bëgg sëñ Tuubaa di ko dund ak xasaa yi di yàlla ko yàlla sàmm ci barke sëñ bi Xaban moom it ñu am ko tey ci plateau bi bëgg lool di nuyu tam sunu beneen soppe di sunu jarbaat di sëriñ Fàllu Tin jàngkatu borom jumaa ji dañ koy bége mu nuy bége léeg-léeg sax mu toog woo ma téléphone mu jokkoo ci yu bari ku baax la ku set xol ku bëgg xasaayid yi di ko jàng yàlla na ko yàlla sàmm nuyu itam kuréel yi teew yëpp dina gunge di nuyu mbokk yi nuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew nuyu technicien yëpp nuyu nag waa groupe kenn du sëriñ bi bàyyiwu nu leen ñoom jataay bu ñu am ñu ngi ciy sonn dina toppatoo gis nga léeg-léeg sax nu gis ku mel ni sëñ Xaamidun Jóob war a dem ci geneen kër goo xam dañ fay tasaare njàngalim sëñ bi dañ koy yaatal taxaw ci ci njiital sëñ Mama Cuun ak soxna Awa Sow lépp rek ngir mbaax ak bëgg sëriñ bi kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel nuyu soppe yëpp bàyyiwunu kenn delloo la kàddu gi sëñ Xaamidu Jóob incha allah ba yi ñu delloo la nuyoo yu sell yooyu nga xam ne ni euh, moom nga nuyoo bu ñu ko sofee ci suñu nuyoo day mel ni day mat sëkk euh, ni nga ko waxee léegi rek fi nga bàyyee muy waa kenn du sëriñ bi Euh, dañ leen di jaajëfal ndax waxtu émission bi tàmbalee rek ñu yaatal ko ci YouTube bi yaatal ko ci page Facebook yi yaatal ko ci Instagram yi te lépp rek ngir yaatal liggéeyu sëriñ bi ngir nit ñi mën koo jëfandikoo euh, léegi rek bi ñu commencé suivre maa gis ñu naan YouTube bi moom bu déconné rek tey tubaarkàlla ñoom daañu déconné euh, sëñ moom ma ñëw na ci plateau bi ñu ngi ziare sunu yaay Awa Sow ak mbooleem responsable yi nga xam ne ci biir groupe bi yëpp ñu ngi leen di ziare soxna Ndiaye si bi soxna Kumba Saaxu Mambelo Sugaawan Diop soxna Adama Mbacke ah tubaarkàlla eh, soxna Bintu Jaxate eh, soxna Nogay Ñang sama xarit tubaarkàlla ak mboolem ñi ci biir yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax sañ Moustapha Touré ñoom eh, sëñ Ablaye ma gërëm nag soppe yi ndax bërki démb la 19 moo nekkoon sama anniversaire wax dëgg yàlla mbokki soppe yi nga xam ñoo nekk Touba ci njiital sëñ Mamor Mbacke Dendey waaw ñoom maa defal surprise daal di dajale sëñ ndeysaan ay cadeau ñëw ca kër ga def fa daayira boo xam ne nii ñoom Baye Ibra Samb sëñ Cheikh Ngunda Gueye sëñ Moustapha Diop Taysir ah tubaarkàlla sëñ Soyo bu Mbuup ah la ñëw def fa njàng moo xam ne nii kéemaan la sëñ xaadim géey mu ndaw sëñ jàpp mbay ñoom ñëpp ñëw yëkkati fi ay xasaayit sëñ Mbàkke Fall ñoom eh, di nuyu baax soxna Kumba ndax lépp ci loxoom la jóge ñu di ko sant bu baax ak mboolem waa daayira ba yëpp ndax ñëw nañ teew eh, mboolem tut tànk yi fa ne xam naa bu may jeexal dinaa leen gërëm ndax ñoom it ay cadeau lañ def ñëw eh, wax dëgg yàlla ngir yàlla ak yëngu ji ak sëriñ bi sëñ Pape Fall sëñ jànkatu xasaayit la ak Baye faal ñoom ña nga fa fe ca Mbàkke bari ñoom it tubaarkàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci liggéey bu solo boobu kon su ko defee bala ñu cee ñëwaat sëñ arabi imaam dama lay bàyyi nga nuyoo am na ku ma wax ne ma euh, sëñ Ablaye dañ doon waxtaan démb ak moom ci Masaalikul Jinaan mu ne ma dañu war a waxtaan ci tasawuf ak ni niñ ko bëggee dajji am kilifa gu ne ma déedéet sëñ Ablaye na wax ci masaalik waaye sëñ arabi nañu décortiquer mu xaddimaat xam nga dafa am baat yoo xam ne nii kasafta du jaaxal bi wa kulli xamaytahu bi hif fillati mahmastaka mustakin aska xam nga loolu même buñ la ko firilul sax soo ko déggee dinga xam ne lu garaaw a ngi noonu <laughs> waaw maam di neex gi day day day neex léegi nag tey dama bëgg ndax dañuy faral di wax damay dégg si Ablaay ñoom ñii ñu di ko waxtaane ma ne leen li mu waxal boppam moo gën a yéeme liñ koy waxal te loolu yow danga am xol bu sell bu leer ci ne li li ñuy wax sax li sëriñ bi wax frilé guñ ko askan wi ma bàyyi la nga nuyoo ginnaaw bu ñu la joxee wàcc waay woowu nga nuyoo téléspectateur ba noppi ñu door a dugg nag ci waxtaan wi alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabiyi waladi abdillahi waftax lana kulla baabin kunta fatixahu لصالحين من الخيرات يا الله واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا est-ce que Cheikhul Khadim maa ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi ki sagal diine ji sagal l'islam bi fekkoon ko jàngkatu tubaab yi jàpp ne sëriñ mooy ku yalwaan moo tax sax léeg-léeg nga dégg sama gàmmu ko gouvernement ba joxuñ ma xaw ma ndimbal joxuñ ma nangam alkaati joxuñ ma lii mel ni ñun yalwaan rek lañ fi nekkee waaye doomi sëriñ Bachiru ji di seriñ sëriñ Muntaka moo génn par cinquante million par deux cent millions par nangam ak nangam mu jógee ci këru diine mu boowu ko mu ne ñépp laa ko defal kon am leen maanaam eh, wa taxsabunahu hayyin wa huwa inda allahi azim jëf jooju mu jëf eh, jëf la joo xamee ne l'islam la ekkatiwaat nga ne ma l'islam mësta daanu ma ne ko ankay l'islam ñi koy daane mooy ñi ci bokk tariqa murit ñi gën a dangereux naan murit laa waaye ñoo gën a garaaw ku ne murit laa waaye ñoo gën a garaaw ku maa ngi koy nuyu bu baax Mbakke di nuyu ay rakkam Serigne Ishaq Mbakke di nuyu it le porte-parole Serigne nga xam ne fu ñu tase ci dëj dëj laa wax de mu tase arabi ñas xaaral bala maa ñëw mu jox ma loo xamee ne bu ma ko waxee ñëpp dañ may catu waaw di nuyu ay magam sëriñ Cheikh di xalifa ba nga xam ne adib rek la may ooyee fu ñu tase Serigne Moustapha bëri bëri bëri bëri may ak Serigne Fallou ak Serigne Khadim waaye din du mën fàtte it ki nga xam ne sëñ tubaab bu doon lem ma ne moo ma ko masal mooy sëriñ Maam Mor Mbàkke mu sëñ Murtada ndeysaan di nuyu ñëpp di nuyu itam Serigne Abdou Samad. Serigne Chouaïbou moom Serigne Chouaïbou. ndeysaan nga xam ne daf ma invité. Mhm. ma ne ba may dem kër Serigne Chouaïbou sama ñi àndal dama leen a wax ne kii bi vitesse vitesse boobu nu mu tudd xalifa automatique. carbotage carbotage bi laay dugal. Mhm. ndax kër Serigne Choy bu kër xam-xam la. ndeysaan waaw léegi-léegi benn waay ne ma léeg léegi dangay ngay mën a jàng léegi léeg doo mën a jàng ma ne ñamay fekki ñooy mën a jàng ma jàng. <laughs> ma ma dem ci ñu mënta jàng bëgg léeb lu peen ma it ma respecté con contexte yem ci léeb ak lu peen ndeysaan waaye ma gis ma ma dem ci li ma doon wax ci Cheikh Cheikh Ahmed Bamba ci xasida yi ak ni ma koy décortiquer ak ni ma ko waxee ci jamono jooja waru koo na mën a wax mhm. parce que waruloo na am inspiration mhm. mais ma ne ki nga xamee ne ma nga ca hôtel ya gën a rafet mhm. dend ak géej gi mu am six heures demi ci montram mu gis jant bi di tàppe ci géej gi euh, kontam duun lool bokkul ak sama compte muy bind ci français wala ci araab xasiida walla kooka na muy rafetee mhm. Cheikh Ahmad Bamba ci jamono yoo xamee ne mi ngi ci yu doy waar moo ko gën a rafet style mhm. foofu rek lañ koy comparé ci li ñuy wax littérature comparée mhm. foofu rek lañ koy gisee ci ni mu wax ah dina yooyu nag soxna Baali Mbàkke Muntaqa nga xam ne saa ma demaan euh, porokaan moom la ma sëñ bi boole waaye daf may ganalee ganalee ba pare ekkati xaalis jox ma damay xaw a sax ruus di gêné wu di nuyu njabootu Tuubaa gi yëpp mhm. di nuyu itam soppeey sëñ Tuubaa mhm. sëñ la am amul doom mhm. qulubu man lam yuhibbuuni ala wajali ndeysaan lu tax mu ne walaa yulaaquuna ma raamoo wala albaab mu ne xol yi ma sopput foo fekk ñi ngi ci wajal wajal ci ci philologie wu arabe mooy problème permanent permanent boo xamee ne sagren sa daaw sa da sa sagren muy gën a sa daaw chaque déwén di la fi xaar chaque jour la ilaha yi ma sopput mais pourquoi waxul xol yi ma sopp ñu ngi ci gundaandaat parce que bu ko waxee ci contexte bi dafay mel nii dafay dafay woo nit ñi di propagande moo tax mu bëgg a sowee ñi ko sopput nekk attention ñëw leen qulubu man la lam yuhibbuni ala wajal wajal boobu nag moom la firi ci satru qasida ñaareel bi mhm. lu tax mu ne walaa yulaaquuna buñ demee Amérique buñ ñu demee fu ñu mën a dem pour uti teraanga du ñu ko fa am. ñooy jël ndaare. ñooy jël ndaare. Mhm. wala yu laa ne maaraamu maanaam maaraamu seen càkkutéef duñ ko am. Mhm. buntu buñ fëgg ñu tëj. Mhm. buntu ba tëj pourquoi parce que soppuñ Cheikhul Khadim. benn waay ci ñu yàlla dimbalewut ne waay ñu sopput yàlla. soppuñ yonent bi dara jotu leen moom mu xol yi ma sopput mhm. ma ne ko bokkuñ sëriñ bi dafa bëgg a dallu ay minute jël mhm. ak xale teg ko fi mhm. ne ko dimbali ma ku ñëw nga ne ko na ma xar tuuti nga ñëw mbéj xale booba dóor ko sëriñ ba réaction ya muy def du bokk ak moom nga tooñ ko ci boppam dëgg la moom incontestable ne mooy soppe rasulullah alayhi salaatu wasalaam di nuyu itam bala maa xaabaabal mhm. sama mag Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass mhm. di sama mag mhm. di xalifa Baye Niass heure bii démb maa nga fa di ko tàggu ñuy waxtaan ci xam-xam ma koy wax ak xutbaam yi ne ko ku toog xalifa Baye Niass yow day mën nga faa toog ndax baay Niass xam-xam rek la woon. man mhm. Baye Niass moo a gën a njëkk a boole. Mhm. ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. ndeysaan 1965 ci Maroc. ndeysaan ñoom ñaar ñuy xarit lool. Mhm. ñu ànd ambassadeur bi mu wax leen imposé leen pour ñu dem teeru ji Senghor. Senghor dafay euh, franco francophone nee na moom la doon politiqueal. ñu àgg mu ne. man euh, cinq heures du matin laay jóg ca rat rek laay naan rat ne sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke yow dégg naa da fa faji ak Baye Niass euh, man bu ma xamoon lan nga ma bañee man nag star la euh, ko jéem a fexe ba jubóog yow tubaarkàlla sëñ Cheikh ne ko mënuma bëgg ku bëggut yonent bi sallallahu wa sallam mhm. Sim Touré ambassadeur bi ne ma jox na ma benn enveloppe pour sëñ Cheikh Mbacké mu mhm. te man waxaguma ko ko mu ñëw ne ma luñ la jox bu ko jël delloo leen ko te boo ko jëlee danaa ko xam mhm. laa ilaha illallah mhm. waaw maanaam bu ñuy dugg ci oto yi dem bàyyi ños ne ma demal nga wéttali Serigne Cheikh ak Serigne Saliou ak Xaadim muy doonoon caatam waaw bi ma ñëwee nag li ma ci gën a gën ñu mhm. affecté ma ndar mhm. comme professeur mhm. arabe may jàngale arabe ci lycée Faidherbe maa ngi sant yàlla am na général yoo xam ne actuellement ñu ngi ci nguuru président Macky Sall yoo xamee ne man maa leen jàngal loolu loolu sama titre la ndeysaan ndar googa nag laa falaa defee trente sept ans maanaam ñaari rakka yi ba muy ñëw man lañ ci njëkk sant conférence à démocratie chez le Cheikh Amadou Bamba yomb na parce que moom dafa ñëw rek kenn ku nekk tëj say taalibe bul dem fii bul dem fële bul dem fële yeewal mu dëgër moom mu ñëw ne wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahiida sawaun intama ila aljaylani aw intama li ahmad altijani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala alsawaabi ndeysaan est ce que Cheikhul Khadim ndeysaan te Masaalikul Jinaan boo xoolee style bi sawa u tama maanaam baat yi dañoo dañoo beesee waaw xam nga ñaari façon wu arabe moo am Sénégal am na ñoo xam ne dañ naan mani mani Ndakaaru bëgg dem am ñu naan ndakaaru man bëgg a dem am ñu naan ndakaaru la bëgg a dem tey naar wala ngay tubaab ñu ñi jàng xam nañ ko mais moom arabam dafa yéeme lool surtout ci jamono joo xamee ne man jàpp naa ne kenn jàngalu ko waaw allamanil alimu mooy wax de man kay référence bi moom mooy wax mhm. allamanil alimu kan taalimal ulum mhm. alimu jooju nag ci tur yàlla mu mu mu xaree ko ko yàlla mu moo ko xam moo ko ko moo ko ko moo ko ko jox sëñ Xaadim maa lay nuyu ndax mas naa toog ak sëriñ Sidi Muxtaar ndeysaan mu ko xam nga sama soppe muy man ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan wallaay waaw ñu génn ndeysaan maag ak sëriñ Baara Laxat maa ngi koy nuyu au nit ñi di ma daf di ma jox xaalis di ma raay naan nii mu ne ma ah lii day doy na waar mu ne man ah man de sëriñ Sëriñ Tuubaa direct la da yëf yaa ngi koy làng ma ne ko ah man de damaa ñin bott ci yëf yi rek <laughs> tubaarkàlla tubaarkàlla docteur euh, jërëjëf imam euh, docteur al imam tey sëñ Ablaye baat bu ñu neex mën nañ ko fii véhiculer xam nga xam nga xam nga sans bàyyi gën seen baay baat bu metti la mais sans bàyyi ma gënal seen baay ku la ci mere moom moo la tooñ sama baay gën seen baay boo ko waxee ci penc mi rek indi nga problème mais boo nee sama baay ma gënal loolu doo indi kenn problème lii mu def nag xol bu sell xam nga li mu wax ne xulubu man lam yuhibbuni sëñ Tuubaa fee mu ne wa bisru man ahabbani laa yéen xarin daf ne ala wajalin wajal googu mooy éternellement kooku ci mettit ak coono rek lay di lay dund waaye kii tamit éternellement ci mbégte rek lay dund loolu yaakaar naa ne dana ko indi leeral ko lu ba lu am solo sëñ Xaadim Kebe euh, sëñ Ilimaan da may fàttali sama xasida gi damaa bëgg bu nuyoo day ñëw toog noonu su nuyoo rek day ñëw toog noonu xasida gi nu tudd rabbu samaa yi rabbu yi daal faaw mu rabbu samaa yi ko tey euh, bu nuyoo rek day ñëw toog noonu su ko defee mi ngi jàkkaarloog sëñ Fallou Tine mu nuyoo sëñ xabbaan nuyoo donc bu nuyoo balaa sëñ Fallou di jël sañ Xaadim day installé su sëñ xabbaan nuyoo mu daal di jóg kon sëñ xab sëñ Xaadim maa ngi leen nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam. ginnaaw bu nu sant yàlla. julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam. di sant sunu yaakaar si Ahmadou Bamba xaadimu rasul. di ko gën a jébbal sunu lépp àddina ak àllaaxira di ñaanal Cheikh Sidil Muxtaar yàlla dolli ci moom ngëneel ak leer taas ñu ci barkeem. ak njabootu sëñ Tuubaa gi jiitu yëpp. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi nekk yàlla yàggal ko fi lool te yàlla wéral ko. te yàlla ak àggale ay yéeneem eh, ndax ab sag la di ko ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gi ci ginnaawam yëpp di siyaare sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ mbàkki Madina njabootu sëñ Mbacke Madina gi yëpp di siyaare sunu sëriñ sëñ Cheikh Gaynde ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp di la nuyu sëñ am bu baax di la siyaar ci jataay bi di nuyu alaaji Mbàkk yu fay mi fi nekkal sëriñ bi fii ci dakaar ak mboolem waa kër gi yëpp ñu ko dale Cheikh Balla Samb ak sëñ Jibi Ndaw sëñ Mbàkke Mbooj ak mboolem caméraman yi ñu fi liggéey ñëpp di saare sunu mag gi sëñ Abdoulaye Diop Bisri moom itam di ko béggee bu baax ci ci taxawaayam di sant ci jataay bi ak taxawaayam ci yoonu murit yal yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko te yàlla defal ko ak bëggam ci barke Xaadimu Rasuul di beral sunu waajur wi bu baax di sëriñ Arabi Ñas tey ñun ñun ñëpp bég ndax ku ku ku bëgg sëñ Tuubaa rek wala ngay ab murit ñëpp ëmbal nañ la cofeel ngir ngir ni nga mel ci sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, dëgg la loolu mu wax yow euh, mën nañ laa boole ci sëti sëñ Tuubaa yi ndax ci nga bokk ndax yéen a bokk lépp ci nga bokk ci ci yoon yu baree baree bari tey ji bu la sëñ Muntaxaa gisee da lay def na boppam kon nag yow ci yoon wi nga bokk te ni ko sëñ Ablaay waxee sa waajur wa yàgg naa wax ci ku tedd ki Xaadimu Rasuul yow itam ngay nga jël loola rek wéyal ko ndax wajal bii nga fi leeral rek loolu doy na sëkk émission bi kon nag ndax benn bayitu sëriñ bi mën nañ cee waxtaan ba suba ndax benn baat bu nu dafa yaatu ndax xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin loolu mën nañ cee fanaanee waxtaan nga soog a ñëw ci wala yu laa gi ndax lu tax laam gi am ki maaraama walal baaba te bunt bunt bu tax muy buntu bu tax muy wax bunt bi yàlla sax ci bunt yooyu la bokk kon nag ku sëñ bi moom ku ko soppul munoo fëgg fëgg ba yàlla ubbil la waxuma laa ne yeneen bunt yi kon nag tey dool nga nu xam-xam yàlla yàggal la fi yàlla sàmm la yàlla yàlla yàggal la fi te wéral la noonu ni ma ko waxee noonu la demee eh, sëñ bi mas na ma mas na maa wax itam ndax xam nga señ arab yi maa ne ko waaw maa ngi koy gis mu baax lool mu ne ma sama lépp sama mbokk na ko fonk kon tey jataay bi bégg nañ ci bu baax di siyaare sëñ Fallou Tine moom itam di sunu xarit ni ko sëñ am

mu mu tiit formé biir mu ma leen wax. ndeysaan sëñ bi sëñ bi mbàkk. mbaa yéen a ngi ñaan ci côté yooyu waaye mu ne déedéet mu ne ah gën a war bi. ma ne ko man bi leeral adduna bi takk mu leer takk mu la fii la ne. ndeysaan ndeysaan. mu xaw a kii ma bëgg koo wan sa sa baay sa maama ko wax. Ah, zimaamul wara. asri fii ya ji rek asri la de la yooyu yëpp. muftali jire woni zimamul wara ladellahi bine jire asri ladellahi bine mo muuñi waaw daal ne waa ji enveloppe yaa ngi rang seet na ko am fulla naa ne waa ji jox ko ci enveloppe seet enveloppe yi téeméer yeeg yu ñaar téeméer yeeg <laughs> ma toog ba ci àgg ma dimbale waa ji seet ba ci ba toll ni kaamil man na ko yaakaar naa fii <laughs> ma kii addiyeeg Pape Diop la xam nga loolu mooy boo ko jox si mbir jox ko ko sëñ Sidi Moxtaar bu ñëw bi ci bunt bi mu ne xam ne tax ma kontaan ndeysaan ñii nga defee da jàpp ne li nekk fii ak li nekk fii yaa ko moom sañ xabaar moom bu baax a baax di bëgg ci ñoom di ñaan xasida yi yàlla dafa leen ci seenu bëgg di saare ñuy àndal ñëpp kulim rek juum di saare sañ xaadim falme ak mbokk yépp nag di beral ab nuyoo sëñ Modou Faye nga xam ne kenn la ci noonu moom itam di kenn ku rëy ci ci sëñ Touba ñu ngi koy li ñuy yëkkati yëpp ci abiyaat yi mu di ko mu dina ko baaxee ngir jëmi borom Touba yàlla yàggal ko fi sàmm ko sàmm njabootam yëpp di nuyu sa sëriñ soxna Daba moom sëñ Blaat bu baax a baax ak soxna maam Faati ak njaboot ga yëpp waaye di ca jiite nag sëñ Sidi mu sëñ Blaat jërëjëf. kon nag ah, euh, mm. euh, waaw. Euh, ci taxawaay ak yaayam ñëpp. tey nag ki ma solal daf maa solal ba pare par Cheikh indil ma problème ndax daf maa solal ba noppi ne ma ma boo ko waxee ma bàyyi la xam nga ne lii métti na teral nit ne doo ko wax waaye nag maa ngi lay bàyyeeg sëñ Tuubaa nga xam ne moo tax nga di def yàlla la yokk sàmm la defal la tawfiixi Cheikhul Xaddim addina ak àllaaxira eh, sëñ Fallou du la wax da ngay wax asalaamaaleykum waaye dama lay wax ne la da nga ñuy nuyoo ak xasaayit ni ma la namme nag maanaam kii xeeti yooyu ngay def ak kii tubaarkàlla kéemaan la moom yooyu moom gaa yëpp ngi naan sëñ Fallou Tine tubaarkàlla waaye loolu laa bëgg daal nga ubbee yow bul ne salaamaaleykum yow neel der rek nuyoo ko la tànk sëñ Xaadim di installé qaadir wal muqtadiru maa xaasahu min al anaa il qadaru barkeb xaadim rasul wa kulli taa'irin wa kulli maasi wa kulli arsalin wa kulli faadili wa kulli xaayirin wa kulli saayili wa kulli arsalin wa kulli faadili wa kulli xaayirin wa kulli saayili wa kulli arsalin وكل فائلي وكل خير وكل سائلي وكل أرسل وكل فائلي وكل خير وكل سائلي وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فازي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني الحمد لله jaasi man ahsanu bil xayri wal ma faasi wa salawaatuhu ala btihaami wa alihi wa sahbil xuddaami haasa wa innal yawma suuri daa'i wa su mahabbatin lihaa laa ii lisaaka qultu taaliban min alkarim jasaahum bi jaysil jaylasim yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana salli ala xayril wara muhammadi waalihi ma saabil hubbadi waxfir sunubi wa sunubal muslimin wal muslimat ya qafuuru ya muin waqdi hawaijal lazina daamu في خدمتي وابلهم مأراموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والإسلام وجاسيم حنية بالقفران وبالكرامات وبالردوان واجسبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الردى واصرفهم عن الردى والدير واغفر لهم كل القم والذنب وابلهم عن صلاع الخلب وكم مهينهم على أموري الدين والدنيا ما مدى دوري ولا تواقشهم بما قد أجرموا في سر والجري فأنت الأكرم وافتح لي في الحلوم فتوى يسيل حلق دنسا وقضحا وهب لهم sëñ sëñ Fallou mu mu xool son bi mu am tuuti kii waaw euh, mu xool ko tuuti sëñ daam euh, la temps que sëñ xàbbaan di nuyoo euh, su ko defee ñu mën a àndaat ak moom fi mu toll am na solo waaye micro bi moo am tuuti benn grince bu muy def rek mu ngi koy xool tubaarkàlla wàllum technique nga demee noonu sëñ xàbban ma bàyyi la nga nuyoo li ma wax sëñ Fallou rek dama xamul nag man gën xasida nga may ubbil waaye daal ñiy teewlu ñëpp bëgg nañ nga ubbil leen ay abyaat balaa ngay wax asalaamaaleykum. aouzu

ndeysaan wax bari bariyatil badan saa qalila bal bariyatil badan asadaqa man xalawni bidadan fadaytani fadaytani rabbi bisin waqalan shashati xaniidaka bi walan رفع تمام شهر لي وما بطن مني منورا بفتح لي حضن باركت لي باركت لي في من جلا وما استكن والساهر والباطن فيك سكن ملكتني بعثت لي يا ذا الزمن وكنت لي بالانتهاء بالامل ساقيتني ما بقيبك يحترن سافدت جمدا خلاتي بقرن شهدت لي بمن كفاني مهن يا من لفلكي بفيدك سعن جسبت لي سر النفاس فتن بخلفاء منهم ليس نفعتني بذي الفروج والسنن والسب والأملاك عصمت منا نبهتني عصبت عني ياسا يا من لحوم النتام لتسن هربت هدا بمن ربي لحن لقري الدر وحد لم يحن تيسي الأمراض صحة البدن ودحر بي مهرجا بيدا تيسي الأمراض صحة البدن ودحر بي مهرجا بيدا إلى الجنة التي وعد متقون لحب قديم الذي كان له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 Eh, nga yeggale bayit woowu rek su defee ñu daal dem ci sëñ xaadim ke ba mën a dugg nag ci waxtaan wi mujibu yaa karimu wahablum sahaadatan yaa barru yaa mujibu yaa karimu saadatan taduumu yaa baru yaa mujiibu yaa kariimu wasrif quluubahum ilaa taaxaati bil xilmi wal xamali fiil awxaati bi jaayi afdalil waraa muhammadi wa aqi sëri ramadaan al أمجدي واقع آلي وسبي جميع واقع كل شيء عبادة متيح وسلم عليه ثم سلم وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى saadatin wali najaatin wa hula subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin addiya xaadim rasuul te bu baax a baax di la delloowaat nuyoo eh, di nuyuwaat mboole mbokk yi nga xam ne ci YouTube bi di ñu topp ak ci Facebook bi ñëpp ñoo ngi jot seen i commentaire tubaarkàlla di leen ziyaare sëñ Xaadim Kebe sëñ Ilimaan da koy jege ñu euh, bàyyi ak euh, ki nga xam ne mooy euh, nu mu ko nu mu ko waxati ma ñu bàyyi ak sëñ Xaadim Kebe mu ubbil ñu xasida ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ moo du Faye mi nga xam ne nii werekaanu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñu di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu te mu wér su ma gisee sëñ Maxari rek sama xel mi day dem ci moom tubaar tubaarkàlla ma koy ñaanal muy sunu sëriñ di sunu xarit maa ngi gis léegi sëñ Pape Diop sama xarit lool tubaarkàlla nee na ma kañ laa ñëw waaye suba sax bu la neexee nga ñëw sëñ Ilimane sëñ Mortala Sock ñu ngi may napp léegi sëñ Xaadim Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax tubaarkàlla ak mboolem ñuy jàppale sëñ Xaadim ko ci njàng mi kon sëñ Xaadim ma bàyyi la nga ubbil ñu ak rasuluna ñu door ñëw ci eh, sëñ Abdoulaye Diop ak docteur Imam Mouhamed Arabi Niass bismillah ko kàddu bi sëñ Xaadim maa ngi maa ngi jot léegi message am waaw sëñ Arabi sëñ Xaadim moom sëñ Sidi Mokhtar mi ngi yónnee léegi bataaxal di la nuyu waaw muy ku baax moom it di sunu sëriñ di sunu xarit di xaritu sëñ Mamor Mbacke jaxasoog moom loolu ñuy benn ñu ngi koy jox wàccuwaay bu baax muy borom xam-xam bu rafet kon bismillah euh, sëñ Xarim Kebe min alseytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rasul xatan wala ilaha illallah xatan wala ilaha illallah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 ولا إله إلا الله إلا الله قطعا ولا إله إلا الله an wala ilaha illallah an wala ilaha illallah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 sali wa salim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bi kulli sanatin jasa'u rabbiya wa ajrul muntaha ساقى لخير جهتي ما يتخوى وابلي كل سنة وكل سال واصل لي كليتي في رجبنا ما التسم رجب هل تسم أصلح كليتي لا إله إلا محمد رسول الله جزاء ربي وأجر المنتقى ساق لخير جهتي ما يتقى لا إله إلا الله محمد رسول الله laa ilaaha illallah muhammadin sayyidu saadaati laa ilaaha illallah muhammadin rafiu darajaatil wada barakatul kitaabi wal xadiise hatta tiyaata wil sa tahdiise wal araadil qatan wala لا إله بركة الكتاب والحديث حددي أتاويل ستهدي والأرادي حتى ولا لا إله بركة الكتاب والحديث حدد بياتا ستهديث والأرادي ولا لا إله دي سخير العالمين فسرى يا الكتاب وأموري يسرى والأراضي قطن ولا لم يلخني سف ولا ترددا la teraawun la wala taxaddudu wal aradil xatan wala sarra rasulallah sallallahu alayhi ma ubbi ubbi bi بهلا صلى الله صلى الله أبدي بي سر الرسول الله صلى الله عليه ما أبدي أبدي بي بهلا sallallahu sallallahu سكرت يندل جوار الملوسات وسادني عن عن الهدى وسيئات صلى الله صلى الله ubbi bi awsaltu lil muxtaari indil muus bi dee ali bi xawaadahu joom dal xubadiya sallallahu alalaaw ولا تسل هرسل أسيم أبدا على الدسي كوني كوني خديم مهو بدا صلى الله صلى الله للمنتخب قتل لدى النصارى للمنتخى قتل لدى النصارى للمنتخى قتل لدى النصارى المنتقى قتل لدى النصارى المنتقى قتل النصارى المنتقى قتل النصارى لقد للتوتين والأنصار منتقى نصارى توتينا أحسن الله عن تناصري وكان لي وجاودا بتبسري منتخى نصارى توتينا كتابتي خبل لدى أن الكتاب لنسات نور لساني والكتاب نور لير لا لنسات نور لساني والكتاب نور اللساني نسعت نور لساني والكتاب نور اللسان لنسعت نور لساني والكتاب نور اللسان لقنني موي لأنبيائي يقنا بالخطب في ديائه منتخى ليس الماء لم تنني سلم عند سالمين الكافرين الفاسقين المجرمين الفاسق الكافرين الفاسقين المجرمين الفاسقين الكافرين الفاسقين المجرمين bamba lim na leen ñoo ñële alkaafiriin alfaasiqiin almujrimiin faasiqiin alkaafiriin alfaasiqiin almujrimiin faasiqiin alkaafiriin alfaasiqiin almujrimiin فاسخ يذكر رب العالمين هم بلا أسن وسير أو مؤمر منتخى ما خادلت يقدر للتوحيد والاستقامة خير تزاوف لاكم جمها منتخى ما خاد ترتوان من الكفور والفسوق وسير كيف وسير برب birib mi soox saan ma xaadalit yaqdu li ilal jinaani laaw bu sara laa ilaa illa laaw yàlla rekk ay buur bu sara laa ilaaha illallaah yàlla rekk ay buur bu sara laa ilaaha illallaah kalimatu laa ilaaha ulya bu laa ilaaha illallaah kalimatu laa ilaaha ulya busara la ilaha la ilaha illallah barki borom Tuuba addi Xaadimu Rasuul te commencé busara la ilaha illallah suñ xaajum ke moom faaw ngeen attemaak moom tey ci plateau bi sinon ma libéré ko mu dem Eh, yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko taw féex mu may mu yeggale li mu bëgg a liggéeyal sëñ Tubaa ci xaside yi yaa ngi seral xolum mboolem mbokki taalibe yi eh, eh, lii moo dig noos bu ñuy wax ak noos mooy lii mooy lii dundoon ak ruux te doo lekk doo naan sun borom bu tëggee malaayika yi duñ lekk duñ naan waaye terewul ñu ngi dund ci lan la ñuy dund mooy ak leer leer nag mooy lii mooy ak moo dig noos moo tax yàlla na leen sëñ Tubaa taxaw xaside gi moom tubaarkale li mu ci bëgg du lii Eh, waaye mënaguma ko bàyyi sëñ Ablaye bala maa ñëw ak imam ci contexte langue yi sëñ daam ak may tegal benn euh, démb damaa dem siyaare ji sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Jean bu ñu ngi koy ñaanal baax yàlla may ko wér yàggal ko fi te mu wér mi ngi lay yónnee ay nuyoo mu defar benn néeg bu rafet kër goo xam ne ku ko amoon tey leneen nga cay def mu def ca lal bi sëñ Touba yoroon daarul mën naan te mu indi woon coow li bañ yóbbu ko gànnaar nga xam ne lal boobu la ardo ba làmboon guddaayu lal bi mu wutloo woon ko sëñ Gaawaan ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ bi mu làmb ko jàpp ne ay arme yu sëñ Tuubaa di waajal la lal boobee la jël def ko ci bâtiment boobu nuy waxtaan mu ne ma ñett yii jàngat la mu bëgg boobu nga dugg ci balaa ñoo ñëw ci mbind mi mooy bàyyaxtahu fil barri fil baxri taxta shajara loolu ba mu koy wax mooy ca ron màngo ga woon ca làmbar na làmbar na juróomi at la fa am yoo xam ne nii da doon tawte di woor du mu am lu mu doge di sonn di wiital suñ borom di bind di tawte di daj loo xam ne ni mettit la mu ne fii laay jaayantee man tax taxta sajara boobee la ko war lépp du jubluwuñ lu dul lor ko sëñ Ablaay sëñ Tubaa moomee wuute wul ak sëriñ Tubaa mi ñëw 1912 njaareem ñi ko wër ñëpp yor addiyee juñ ko bëgg a jox te mënuñu koo gis sëñ tubaab ma nga mee nga xam ne nii ña ko wóoroon dañoo yoroon luy lore ngir bëgg koo tiim fas ko yéenee lor wuutewul ak sëñ tubaab mi nga xam ne dañoo ñëw njaareem ñu di ko wër ngir yor luñ jox luñ yor luñ ko bëgg a jox te mënuñu koo gis wuutewuñ ko sëñ daam image bi buñ ko mënee xool balaa sëñ Ablaay ñëw ci réponse bi euh, ndax dafa am ñaari ñaar yooyu est-ce que am na woote ci wuute ci bi muy liggéey ak bi mu fayi koo ndax ku ne xam ne ne njaareem la fayi koo loolu nag bi muy bind contexte boobu sëñ arab yi dana ñëw ci mbind mi ku ne xam ne ni mbind am xel a koy def xel mu dala koy def nga ñëw nag di bind mbind moo xam ni amul benn tomb wala benn sadda bu nit mën a wax ne moom lañ bàyyi fii wala moom lañ fàtte fii sëñ Ablaay ñaari cheikhul xaddim yooyu di début à fin amul woroo ci contexte bi nga xam ne ni sëñ Tubaa nekk na ci jërëjëf sëriñ Xaamidoun mhm. euh, sëriñ bi léppam dafa yéeme xam nga damay wax ni ba mu waxee ni kulliyati mu'jizatun ta aqarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat ci la léppam yéeme kulliyati dafa gën a garaaw kulli ci mag lañ toogal xam nga daray sëñ génnu ci bu nee nag kulliyati sama lépp mu'jizatun ta aqarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat kon mbind da ciy dugg fu mu mën di nekk rek léppam kéemtaan la nga indi bayit bu am solo baayaatahu jaayante naa ak kan moom yenent bi alayhi salaatu wasalaam def mu baaya ak moom jaayanteeg tam yàlla sama borom mhm. jaare ko ci yenent bi nga xam ni mooy jaarukaay bi waaye bi mu koy def nag taxta sajara mhm. ca suufu garab googu nga xam moom rek la toogoon mu ne nag maa ngi ko defee fil baxri booba jamono nag wal wal baxru musbidun waaw waxaw lii fajara waaw boobu jamono géej gi rek moo ma fay seere géej gi géej gaa ngi duusu ànd ak ay vaggam di ma seere ña ma wër ñëpp di ay kàccoor nag ñu weddi yàlla waaye laqad tabayyana lil fujjaari kullihimu kawnul kiraami maayi is jaysuhum xaanu ñoom leer na céng ña ma waroon foofa ñoom xam nañu ni gaa yu baax yépp tànnee fi yàlla yépp téere bi yàlla bi ngën gi mbindeef ñépp ñu ngi ànd ak man ci jamono bi may nekkee seen biir mm-hmm. kon jamono ba mu nekkee ca géej ga foofa ci liggéey bi la nekk ci xidma bi moo tax mu wax ni maa ngi jaayante mm-hmm. ak moom ci suufu garab wéet fa man dong ay kàccoor yu weddi yàlla képp wër ma mm-hmm. ñu tàbbal ma ci bërëb boo xam ni bërëb bu tiitul la bu raglu la man dong ma ne fa di liggéeyal yanantu bi alayhi salaatu wasalaam waaye bi mu ñëwee sax ba ñibbisi bi muy dem gànnaar tàmbali naa wax ni pay pay gi mu ngi door rek bi muy ñëw sax gànnaar nee na tàmbali naa jot fayam moo tax mu ni képp ko njortu ni sama tukki bopp ama jay sa sin muy 1895 jëm ci géej gi mhm. nuroo naag sama tukki ak sa sin muy may dem gànnaar mu ni kooku dara dalu ko lu dul réeraange ak ndof ak ñàkk xam sama mbir mhm. Mhm. waaye sama demu gànnaar bokkut ak dara sama demu gabon sama dem gànnaar yàlla moo ma nam ma commencé fay fay goo kon doore gànnaar sama demu Mauritanie. sama demu Mauritanie fa lañ commencé ñu koy fay fay googa nag ñu koy fay mu koy togg ba ñibbisiwaat ak moom senegal ba bi muy nekk ci yéen jolof ci fay la nekk ñu koy fay rek ay salaire ba bi muy ñëw njaareem nag fa la dundam di war a mate foofee nag fay gi gën a fés moo tax li ciy preuve ñoom ñi ko sonaloon gis nga bi mu ñëwee njaareem defe naa ni ñaas bi gën a rëy te ko xonq wax ko di ab tubaab muy Antoine la Lasselve mhm. njaareem a tax mu wax ko mhm. njaareem la nekk euh, bi sëñ bi nekkee résidence surveillée nekk fa diiru fukki at ak juróom yi mu fa sax laata dundam di mat ci àdduna pour mu dem wuy ji boromam kone xam na ni bi mu fa amee ñaari at ci njaareem ci la commandant de cercle boobu di euh, Antoine Marc Lasselve ci la defee article boo xam ni bind benn discours boo xam def benn témoignage boo xam ni à l'endroit de sëñ Touba wax li mu gis ci moom Mm-hmm. te pourtant ñoom tubaab yi ñoo ko wéetali woon Gabon. Mm-hmm. ñoo ko doon fitnaal ca Gabon. Mm-hmm. ñoo ko yóbbu woon xat-xat yooyu. waaye ñoo ñëwaat seereel ko seere bu rëy boobu nga xam ni dégg guma ba tey sax jullit yi seere lu mel noonu. seede boobu waaw boobu seede jullit yi sax seede guñu ndax dafa wax ni sëriñ tuubaa mii ma teg bët day gis naa ci moom kattan goo xam ni ak may koo xam ni xelu doomu aadama. mënul di xalaat ak di lijjanti ba xam may gii nu mu demee mhm. mu ni mbiru sëñ Tuubaa nekkul loo xam ni da koo jot ci àdduna dafa am lu ñuy wax ak acquis ak inné mooy li nga judduwaale ak lu la dab mhm. mu ni mayuk sëñ Tuubaa nekkul loo xam ni da koo dab ci àdduna mhm. waaye dafa ñëw ci àdduna ñëwaale ak doole ji ko yàlla jox daal ni Cheikh Ahmadou Bamba day ñi ko gëm yaakaar ko yàlla boole ko ak ñoom gëm nañ ko gëmin koo xam ni jàngeeful ci benn téere wala ñu dégg ci benn histoire ñoo xam ni gëmi nañu ka ñu topp kem gëm gii gaa yi sëñ Tuubaa yi gëme sëñ Tuubaa daal ni gëm gi ñu ko gëm sax yóbbee na leen ñu inconditionnel mooy ñoo xam ni sëñ bi forcé wul kenn <laughs> waaye ñoo ko mënatul a muñ fu sëriñ bi nekk ñu fekk ko fa te loolu li koy firndeel mooy sëriñ bi xam ngeen ni bi muy sanc Tuubaa dañi damay daw nit ñi daw ci loxo li ci loxoy nit ñi mm-hmm. yàlla rek laay wuti ci waaye ba ma fa ñëwee ñaara a fa fekk kuy wut yàlla ak kuy wut àdduna mu ne ñaar ñëpp kenn jaaxaluma ci kiy wut yàlla am naa yàlla ba matal sëkk ku ñëw ma boole ak sunu borom marale la ak moom kiy wut àdduna yàlla jox na ma àdduna jëpp te soxlawu ma ko kon da doon daw nit ñi mais nit ñee ko mënta muñ fu mu dem ñu ne ko yaa nii moom Antoine Marc Lassalle bu wax ni kon gis naa gëmin wu ko taalibe mi gëm te gëm ji moom forcé wu leen moo ñëw ni ko par force yaa nii moom xam nga lii waxi dëgg la mu wax ni ñi doon tuumaal sëriñ tuubaa di wax ni sëriñ tuubaa dafay wut nguuru àdduna su ma doon seet ñi gën a réere réalité humaine yi xew ñoom lay tànn leen da a réere sëñ tuubaa sëñ tuubaa soxlawul lu toll ni bën bënu puso ci àdduna ak nguuram yàlla yi kese lay wut ak yanamtu beeg alquran daal di wax ni yàlla may na ko xol bu laab ak mbir muy màgg ak mbir mu rëy moo xam ni ña ko jiitu woon ci àdduna buñ dellusiwaatoon dañuy ñee sëriñ Touba ak lu seen may ya rëy rëy dañ koy ñee di ko envier mu wax ni nag sëriñ Touba bëgg na lu baax am xol bu set waaye li mu yéene ci tuyaaba ak yiw njabootu boppam moom lay yéene sax ay noonam mmh. ah, moom la yéene sax ay noonam dinaa wax après article mu koy firi ba pare door ko wax mmh. mu wax ni bu ñu jëloon lu tuuti ci kàttanu sëñ Tuubaa lu tuuti rek lenn ci kàttanam mhm. teg ko ci nattukaay bu ñuy natte jël doole yi mboolem yanantu yi la wax prophète yi ak mboolem wàll yu yàlla yi ñu jël seen doole jépp teg ko ci benn nattukaay bul teg doole yi sëñ Tuubaa jëlal lu tuuti ci doole yi sëñ Tuubaa nattale ko lu tuuti loolu mooy wat doole yi ci des yëpp mu man mi ko wax nag waxuma di làmbatu bette naa sëriñ Tuubaa nu nekk mhm. njaareem laa nekkoon may commandant de cercle bi fi France dépêché ma ñëw fi di ko contrôler maa dem ba yëg ci lii Serigne baa ma wax ko mu ni sa Cheikh Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à expliquer la source et saisir la capacité de forcer la sympathie la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent un secret divin et une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. se seex de njaareem se distingue par une pureté de cœur par une bonté par une grandeur d'âme par un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi qualité pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié quelque grand que fussent leur prestige leur piété et leur sainteté mu ni je sais que les saints et les prophètes qui ont mené une sainte l'ont faite sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce Cheikh de Ndiarème que j'ai rencontré au cours de ma vie signé Antoine Marc Lasselve depuis Paris en France loolu kon lu ñu mën a teg loxo la kon mu wan la ne ñoom tubaab yi ko wéetloo woon ci àll boobu biñ ñëwee Njaaréem ñoo wax wax ji ci Njaaréem nga xam ni kon Serigne Touba changé wul discours lu mat a bàyyi xel. xam nga léeg-léeg nga ni diw fii mu toog a tax muy waxi nii. waaye buñ ko yóbboo ci béréb bu sori dina changer discours léeg-léeg nga ni diw lii muy wax lépp dafa wéetut ak nun bu wéeteeg nun dina changer discours léeg nga ni diw li tax changé wul discours mooy dañ koo gerul ci xaalis waaye bu ñu ko wanee matériel mu changé li muy wax 24 heures rek gars yi bala ñoo yegg dig ngi noonu kon sëriñ bi boo seetee natt waxam ca ba muy woote yoon wi ca Mbàkke Kajoor natt ko ca ba muy wax ci sanc Tuubaa nattale ko ak bi nga xamee ni ñu ngi koy génn may dem nattale ko juróom-ñaari at yi mu def Gabon bi mu dellusee lim fi wax bi mu demee Mauritanie li muy bind bi ñu ko yóbboo ci yeen jolof la mu bind ak li mu bind ci njaareem ba bi ñu koy noppee gis képp ci lay jubbantikoo def ko léppam muy alquranul karim loolu moo tax puissance waxam dina roog benn puissance ndax alquran daf ko jox gëddaam waxi sunu borom daf koo yëkkati teg ko fa ko sunu borom bëgge yàlla tam suturaal ko waxam ñu koy yëkkati waaw ku yëkkati wax yàlla yàlla yëkkati say wax ku góor góorlu jéem a joxoñ sa boroom ni moom rek la sunu boroom joxoñ la ci jaam ñi ni kii la loolu moo tax Serigne Touba léppam di miracle mësta changer discours kon ba may laaj ca ba mu nekkee ca suufu garab ga jaayante taw képp di ko wéttali taw bu metti mu sax fa lu mat sept ans xoola bi muy wax ci Lambaréné Lambaréné Serigne Touba def na fa deux ans nga xam ni boo demee ñu war la tey fi mu daan jàppoo ci dex gi di dem di jàpp xoolal Mayomba muy àll boo xam ni juróomi at juróomi at sëñ Tuubaa ne ko cinq àll boo xam ni li koy wéttali mooy ay weñ les mouches zézé ce sont les mouches qui transmettent la maladie di sommeil jànkat yi xam nañu dalay wàlli tawatu nelaw ñooy tong ci kaw sëñ Tuubaa ay xeeti jargoñ ay araignée yoo xam ni yëpp a dangereuse ñoo doon wër Serigne Touba. ñu teg ko ci bërëb boo xam ne climat bi mu fa fekk. boog te climat bi mu miin ci Sénégal ndax sëñ Touba ci climat sec la jóge un climat sahélien. ñu yóbbu ko ci un climat humide. ndax Gabon day taw comme Côte d'Ivoire. tous les mois muy taw ci kawam. nga xam ni socc da koy yomb. te am na benn professeur bu ñu wax professeur Ogaret boo demee ci archive wax na ni man lañu laajoon ci mbiru sëñ bi. ma ni suñ ko yóbboo fu mel ni àllu gabon bi comme moom dafa amee sedd ndax fi mu nekk ni bindoo du ñeme soj te ndox mi ni muy tawee ci kawam foofu humide mën naa am li ñu bëgg ci moom mu loru bala ñu koy lor sëriñ bi nekk fa cinquante ans te changé wul discours te tagg yi mu tagg foofu gën a yéeme tagg yi mu tagg foofu moo gën a yéeme xam nga maa ngi lay wax keroog ci bax baxaa bax baxaa sëñ baa ngi ko binde gabon ci atum 1899 xoolal xeeti baat yi mu fay employé ci bax baxa nga xam ne tey un professeur émérite de la langue soo ko joxee bax baxaa du ko traduire déedéet mukk man ngaa jàng muxtaarul adab moom professeur la xam na li ma wax ndax téere la bu ñuy xamee luga man ngaa jàng ibnu durayd xam na ko daal yi xam na ko jàng su suaraawul jaahiliya nga xam ni ñoom ca njaal benn ca obscurantisme lañu daan binde nga xam ne seen bind dañ lay jàngal vocabulaire kese donte wax gi sax ñàkk na teggin seen yoon néew ci na nga xam foo ko bi leen rek mhm. nga jàng ba àgg maqamatul xariir yi nga xam ni dañ la plafond la mhm. nga ñëw nu jox la bax baxaa bu seexul xadim doo ko firi mhm. doo ko firi baatu bax baxaa ji rek pour dem doo xam ni mooy ëskay ëskay waaw ah, bax baxaa xalabtu kulli li karimin wa baxaa waaw ah, ah? taw biixa ikraamin wa qultu bax baxaa ah. waaw loolu rek professeur arabe mën na ci taxaw du ko lijjanti. nga xool waat yi mu ci employé. léeg-léeg ñaari baat bokk nuñ koy bind duñ bokk prix. te loolu sëñ baa ngi ko bind ci contexte bi ngay wax. bi mu koy bind mu ngi Gabon. ci àll bu jafe wax nga léegi lu am solo. warul woon a possible. ah c'est pas normal. ci lu normal bu ñu koy xool. la logique des choses. moo tax sëñ Touba nañu bàyyi di ci jéem a indi logique. loolu am na ñenn ñu nekk ci yoonu murit wi di wax waaye li nga wax léegi lu am solo nanu bàyyi di jéem a indi logique mais logique mënee su ko indi ci mbir sunu boroom lépp am logique yàlla sax ci alquran soriwul baqara ngay ubbi mu ne alif laam miim dalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqin ñuy ñooñu nag mu ne alladina yuminuuna bil xaybi ah waxul yuminuuna bil yaqiini yuminuuna bil bi ñi nga xam ni dañuy gëm ci kumpa kon am na loo xam ni amut logique bu ñu toogee naan sëñ Touba dañ ko war a waxtaane ci fii nangam nangam waaye dégg yem ci ay xiila xaala du ñu wax ay xar baaxam kooku erreur la ndax xar baax yee tax nit ñi gëm yenant bi gën mbindeef yépp yàlla da koo may mu'jiza muy def ci penc mi lu kenn mënul nit ñi di daanu di nangu bu ñu la waxee naa Abu Bakar Saddiq mi ko njëkk a gëm commerçant la woon doon jaay ci fu ñuy wax saam siri moom Aboubacar Saddi am ñaar fukki at vingt ans di def commerce te tëdd guddi gént weer wi daanu ci biir néegam moom Seydina Aboubacar Saddi vingt ans la am boobu weer wi daanu ci néegam daanu ci kaw lalam dugg ci mbàjjeem weer wi ci kaw asamaan si mu tiit lool bi mu yeewoo midi moins quart mu dem seeti benn labbe bu mën a firi gént ko daan def tafsirul axlaam nga xam day firi gént ñëw laaj ko ni ko dañ maa yebal ci yow pour nga firil ma sama gént bu ma jaaxal mu ni ko noo tudd mu ni ko abool kaaba tur la ci turam yi mu ni ko foo dëkk mu ni ko ardul ijaaz màkka làbbe bi ni ko loo gént mu ni ko dama gént weer wi daanu sama biir néeg ba daanu sama kaw lal bokk ak man benn mbàjj làbbe bi reetaan ni ko li nga wax su wéree bu dee noonu nga ko gisee yenant bi yàlla mujj a feeñal yow yaay nekk jaraafam yeneen mooy weer woowu daanu ci sa néeg abou bakar boobu vingt ans la am tegaat na ci dix-huit ans ñibbi si màkka fàtte na gént gi yenant bi woote am quarante ans moom mu am trente-huit ans yenant bi ni ko yow ni nga baaxee ak ni nga yiwee ni nga ma soppe ndax doo ñëw ci sama diina ci dooleel ma nga dugg ci lislaam mu ne ko bañu maa dugg waaye bu ñuy gëm ab yenant day def lu kenn mënul boo ma wanee preuve ne yàllaa la yónni ma gëm la ndax mbaax gi moom d'accord naa ci wóor gi d'accord naa ci gore gi d'accord naa ci waaye nag defoo lu kenn mënul boo defee lu kenn mënul ma xam ne yàllaa la yónni yonent bi ree ne ko yaa may laaj xar baax at sàngam ba ngay jaay ca siri tëdd xaajo guddi weer daanu ci sa kaw laal ngeen bokk mbajj midi mooy kaar gi dem ci benn làbbe li mu la firiloon doyu la man la doon wax loolu du xar baax li Moustapha def ci pénc mi lépp ay xar baax la dañuy wax ay mojisaatam demal ci téere kaab yi demal ci téere Asan ibnu Saabit yi dañ koy wax demal ci téere Seydil Haaji Maalik bi ñuy wax nuuni ya ñaata la wax ci ay xar baax digganteem ak yeneen yenant yi mag ñépp di wax ay xar baaxam ñu ne duñu ko waxtaane kon Sëriñ Tuubaa bu ñëwee doon na yenant bi faaw mu mën lu kenn mënul lii moo nu dofloo ci Sëriñ Tuubaa mais su fekkoon dafa indi loolu logique rek lu dit mën a nangu lu normal mais kon kenn du gëm dafa indi lu kenn mënul di bind loo xam dafa jaaxal ñëpp xam nga tey soo duggee ci bindu sëñ Touba xam nga suñ nee tey sénégalais ñoo wax nangam sëñ Touba coow sax mën na bari waaye kii xam na Mauritanie ñoom kenn du mën a jàng ba yëpp leen ci jàng dañu xam arab xam cosaan yi dégg luga dégg naxwu xam ko bu baax xam taarix di bind ci seen téere lu doy waar jekku làmmeñu yaaram ñoom ñooñu ñoo seeral sëñ Touba ci jekku gu mu jekku arab nu ko kenn jékkoowul am na ko ñuy wax Mouhamadou Fadil ibnu ahmadu dalili al bi gànnaar la dëkk dafa mën a jàng mën a bind bi muy wax ci mbiru sëñ Tuubaa dani ko lexique yow xam nga lexique lexique moom lañuy wax luxa rek mooy lu lay jàngal baat bu ne nga xam lu muy firi mu ni ak lu ñuy wax grameer xam nga grameer cuune du ko mën ndax langue bu ne ku mënul grameer bi doo ko dégg waaw boo déggee tey tudd nga fi sengoor nga naw Léopold Sédar Senghor parce que dafa nekk un grammairien quelqu'un qui est agrégé en grammaire en 1935 la agrégé en grammaire c'est le seul sénégalais bu ñu njëkk a admettre comme africain sax admettre ko au niveau de l'académie française mu bokk ci ñi génne baat ci làkk bi ndax dégg gu mu dégg langue française lu ko may grammaire arabe bii wax ni grammaire u arabe ak lexique gu arabe muy vocabulaire bi ak générosité bu arabe parce que am na lu ñu daan wax naarul xiraa nga xam mooy sawaras bernde arab dafa tabe day dimbalee dañuy génne asaka di dimbale ñu ñu tane mu ne ñett yi dafa nekkoon apologie arabe maanaam ñoom ñoo ko moomoon seen moomeel la kenn mësu leen cee fekk yëpp leen tabe dégg grammaire dégg langue mu ne waaye yàlla moo natt ñun naar yi ñun arab yi jëmm ju bàyyi ko ca Bawol Sénégal tudd Ahmadou Bamba nii la ko waxee dama koy leeral après tudd Ahmadou Bamba fekk ci sunu biir làmmeñ fekk nu ci sunu grammaire fekk nu ci sunu tabeek sunu xam-xam mu ñëw nangu ko ci nun di ci def lu ñu mënul di bind grammaire bu nu jaaxal mel ni dafa wuutu yenant bi day mës a wax ba ñëpp daanu ci suuf nangu sunu langue nangu sunu grammaire nangu sunu générosité ñun ñëpp mujj nañ topp ci ginnaaw sëñ Tuuba comme ni mboolu dugub di toppi dugub ji ñu topp ko moom daal yenant bi la fi bàyyi ndax ndongaam la di surgaam waaye ku dul moom jaaxal na la ci ni muy def mu ne ko nag yow Ahmadou Bamba noonu la ko waxe yow mi nu gën a jege yàlla nag ndax dafa yell ci yow dina tooñ ndax dafa daggan tooñ mel ni bu sëñ bi noppee tontuwul mu ne ko tooñ daganul te yaa ngi ñuy tooñ danga ñoo fekk ci ñu yaaram araab di ci bind lu nu mënul nangu sunu làng ñu lay toppandoo léegi kon tooñ gan nan la ko waxee dani an nahwu wal lughatu ilmul arabi wal joodu wa saqaau indal kurabi siimatahum fa jaahum fa jaahum zooruta bi ahmadu bamba man ala biruta bi najlu xabibillaahi zoo taaddu bi fa salabal jamia aya salabi minhum fa saaru maahu kal qusubi illaa asiratu nabil anjabi ni ko ahmada bamba yaa aqaa bi afa yaxilu laka zulmul arabi bi axzi naxwihim wa axzi l adabi wa axzi joodihim bi xayri wadabi kon lii ñuy wax ci Serigne Touba waxuma fii la yem ci Sénégal mais ku toppe yàlla nu ko kenn toppewul mu def la kenn mënta mel may la may yu kenn mënta lijjanti ba xam ko lii moo tax koo dem ci moom la Serigne Touba. aayatun min ayatillah aayatun min ayatillah maanaam miracle la ci miracle sunu borom bi kon na mu amee woon discours ca Gabon ni la melit ci eh, njaareem ku ñëw ci moom lu la tax a jub mu jaaxal la ci ndeysaan waxuma sax sëñ Touba waaye defar na ndongo yoo xam ne mhm. ñoom ni ñu jekkoo làmmeñu yaaram mën naa ci cité sëñ Ibrahima Diop almasori mhm. lim daan bind ba tey mhm. demal ci réewi arab bu mu doon mu jaaxal leen ci làng arab te sëñ Touba moo ko def ni mu mel. dëgg la waaw kon loolu dafay wax rek li nga li nga laaj wax. dëgg la euh, euh, tubarkalla. Euh, sëñ Abdoulaye jërëjëf. Mm-hmm. yàlla na yàlla fay la. Mm-hmm. nam ko waxee woon rek. Mm-hmm. ni Cheikhul Khadim. faaxal machaayixi fi sirrin wa fi alin. waaw noon la waxee noonu la ko waxoon si Ibrahima al Masar. yàlla na suñu borom dolli leer ci kawam. Eh, am na ku may wax sax ne ma sëñ Ablaye war na def benn waxtaan ci mag ñi nga xam ne ñoo waroon sëñ bi te bind ci waati wolof. loolu jàpp naa ne def na ko yoon yoon waaye danañ ko utal jotaay boo xam spécial lay eh, ngi tiim xasida goo xam ne nii mooy muxaddamatul am daax xam nga dafa jël aayab wa innaka la ala xuluqin adim bala maa ñëw ci xasida gi damaa ubbi rek dama ne bunt bu ma njëkk a yem moom laa lay maa ngi yem ci bunt alaaynu alimtu wa inni bil fuyudaati mubdiu bi anna al badiha ajdaa dëhra yar daw xes daa nga jeexe bay bunt ba ma nga jeexe alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muqaffa man xalaaniya yar daw mais xasida gi li ma ci jaaxal euh, lépp ayin la waaye alimtu da cee alayka anaa i wóyutu ulumi uyubi afawtu alayya yooyu lay utiliser ci terme yi ci premier bay di loolu jàpp naa ne loxo la boo xam war nañ koo leeral mais dafa ñaari abyaat yi ma la bëgg a laajal loo xam ne bi muy dem bi mu duggee ci gaal gi mu ma waxal boppam sëñ Fallou te nag ma koy mu ngi ma koy junj léegi xasida gi daf ne machine bi machinu bato bi laa dégg muy seede ci man allama ni rahmaanu fi safina bi an na ni nii xaddiimu dil madina bayit boobu da ma koy leeralal bi mu ñëwee nag mu ne darajati tanloo walay sa tant xafit wa man naa minal wara xaf di xufit da may leeral ñaari abyaat yooyu ndax sëñ lay wax na différence su njalbeen gi ak différence su arrivé gi ba muy wax xaaloo liyar kan ak bi muy wax xaatimatu mën a jaati discours bi musul changé te ku ne xam ne discours bu changé bu bu changé lu yomb la ci nit koo xam dañ koo xoqital te ku ne xam na ne moom teg nañ ko xeeti métti wuñ mën a teg doomu aadama ngir bëgg mu reculer waaye muy gën a avancé alimtu allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu del madina euh, bala maa ñëw ci loolu euh, sëñ Ablaye dafa am lu am solo ci lu buy wax ci Cheikhul Xadim mayit ma gën a tànn loolu ndax nekk avocat wu Cheikhul Khadim dafa am ku yàlla dimbalewut noonu rek laa koy tuddee ku sopp sëñ Tuubaa àndoo ndimbalu yàlla ndax wallahu yanfauni wal xalq tatbauni fi l barri wal baxri da nafin bila darar mu ne sa mbokki nàngam yi du ma dellu ca baat ba mën naa ko wax sax mushrikuune yi dama nettali loolu rek ma toog ba ci yàgg rek ma ne ma day waykat yëpp neex na ma waaye ki waaye aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa alladi xafuhu shughli wa xaajaati waa ji daanu ne ma ko wax lool ma ne ko ñi naan mushrik lañ mane ko malheureusement la rhétorique arabe bi ma spécialisé tax ma gën a fonk Cheikhul Khadim euh, nga nga wu boo jëloon téere mi di jàng ci sëñ Tuba léegi nga nangul ko aslamtu nafsi la wax li rabbin muy tanwiin mu mu ne jébbalu naa ci sama borom aslamtu waaw li na nafsi li rabbin laa sharika lahu kon yoon mi amul amul luñ koy waxeeti laa sharika lahu ma alladi an ànd ak ka nga xam ne xafuhu xeeñtu wala taqfu maa laysa laka bi ilmun da ngay gis baat baat bu sëñ Tuubaa wax rek boo ko seet mokkalee alxuraan te mën a jàng da ko xam moo tax euh, xasida yi euh, man man man bëgg gi ma bëgg sëñ Touba ndimbalu yàlla mu ngi ci xasida yi du du du bëgg euh, sentiment ma wax ne du duma docteur professeur donc la simple ma waaye dafa am lu ma defoon euh, bi may jàngalee lycée fédéral bu arabe dama jël ay question indi ko kii euh, office du bac muy tooy ci sàndaga ma gi ma ñëw dugg te te man làmmatuwuma benn góor daal jël euh, kii bi fi mu toogoon jox ma faale wu ma nag ma ngi naan waftah lanaa kulla baabin kunta faatihan saalihiina xayraati yàlla waqdi hawaaij alladiina daamu fii xidmati nekk waa dañ koo jàpp benn douanier moo yónni ab jigéen mu ñëw ne ko nàngam ca loola dañ koy tere mu jàpp ko waaja man këram laa laa laa ne buy simul taalu bi lu yéeme la waa ji ñëw rek ñàngal rek daal di ma fay fekk daal ne ma sëriñ bi da ngaa xam kii ma ne waaw waa ji faalewu ñu dégg de ñu dem ba jaga mu ne ko am nga chance mu ne ko chance lan mu ne ko war ngaa gërëm kii mu ne ko sëriñ Tuubaa kott lay gërëm <laughs> waaw waaw foofu ni ko sowee ak yoon yi ni mu jaaree ñaari eh, julli géej gi ma ciy waxtaan ba ne Cheikhul Khadim ba mu jëlee ñaari tànkam taxawu ko ci géej gi eh, nuñ koy xeeti ci pont yi pont yi di koy jam man de bu doon man buñ ne ma taxaw ci duma ci taxaw am ku ma téléphoné ba ma génnee ne ma ah yow loolu nga doon wax ana tatanoos am na ñu yàlla dimbalawul dañu bari ci réew dëgg la waaw loolu wax rek ñu jéem ko indi logique mm-hmm. amul logique mm-hmm. ana ma ne ko ban tétanos mu ne mu ne ma ah loolu ku ko def am tétanos ma ne ko eh, yent yàlla Ibrahima bañ ko jëlee sànni ca safara sa ana lakke yàlla dafa rocci sirru lakke yow doo waay yàlla mboom bay waay yàlla ba mu taxawee jëg yàlla rocci tétanos mu taxaw fa liggéey liggéeyam ba mat looloo tax man nag ñi may convaincre mooy Cheikhul Khadim bala maa wax ne sama baay ba mu fa njëkkee dem baayam yónni ko fa ne ko demal jaaleel ji ma maam moor jaara xam nga kon kon yëf yi man so sosuma man demaa sof sama baay nee na ba mu àggee cheikhul xadim wax ne cheikh Ibra Fall am naa gan ma nga ca gaar ba demal nga jëlali ma ko lu ko ko te boobu mi ngi ci résidence surveillée mm-hmm. ñeewut lay bugg a jàngal loolu suma mag ji ma ko wax alaaji Omar Niass gaañu na mu ne mu làkk sama baay ci foo xam ne kenn du ko gis boobu nit ñi naturel la lépp naturel la léegi nag lépp si artificiel nee na bu buuxee rek nit ñi daaru moom Cheikh Ibra ba mu ñëw ba ci sama baay mu jël ñaari moom yi ne ko rupp ci suuf su ko am ku ne ma sujjóot sa gaa yi dañuy sujjóot ma ne ko lu ci ne yàlla ne usjudu li aadama aadama di man ak yow mu ne mais tahiyatan lahu lu ci ne mu ne usjudu li rahmani mais taabudan lahu voilà la différence voilà la différence usjudu li aadama mais tahiyatan lahu ma dama ne murid soldar soldaar lañ soldaar ni muy nuyoo soldaar du joxe loxo dafa am nu muy nuyoo civil am nu muy nuyoo moo tax yoon bi am nu muy nuyoo usjudu li rahmaani qaala wa ma rahmaan ba ca laaye ja man li ma gën a yéem euh, sëñ Ablaye mooy ñeme gi ñeme waaw ñeme gi dafa janoog noonam ne axrajtumuu nii bokkut ak axrajuunii mooy génnee nañ ma sosut maanaam lépp moo koy waxal boppam dafa maanaam axraj tumooni ka koy waxal mu sa baaraam bi yaa ngi koy jëm ci bët yi axraj tumooni naatiqiina waqul qaa'iliina ah. <laughs> uslub bi alquran di topp wa maa ah. yantiqu anil hawa waqul wa maa yaqulu sëñ Tuubaa it jël même style bi alquran topp bi annani abdul ilahi waaye wa innani la mujahidun waaw yéeme lool sar njàmbaar gi ak ñeme gi foofa da ngay xam ne ndimbalul yàlla rek la am wallahu yansuru nii ba léegi dafay ñëw sama bàyyi nee bañ demee di ko jaale ji nee na Cheikh Ibra daal di ñëw na ko sama bàyyi na ko aye ma yow noo ma ba di ma nuyoo def na ko ñas moom Cheikh Ibra sama bàyyi na ko sant wa mu ne ko Ibra Faal dof Amadou Bamba dof sëñ bi ne woon naa la jël si daal na nii ne ko sa sa galwar mu ne ko dara jotuma nga may naa nga mu ne ko am nga problème de xam naa ni gars yi dafa ne ma demal nga indi ko waxu demal ngeen ànd ñun on applique à la li sëriñ bi wax <laughs> tey nag murid yi dañu ne dañuy wax ne yenn yi jaaduwul dañoo war a civiliser dañoo nekk Maroc sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba saa yu génnee rek benn géwalam daal di koy tagg tagg tagg tagg sëñ Saaliwu na ko eh noppal waay bañ senegal Sénégal eh, eh, eh, civilisé waay ba ñibbi mu na ko man am moret laa am moret du civilisé waay <laughs> ma maanaam loolu la am moret du civilisé mais mëru am moret du changé bu demee Amérique moret la bu demee feneen moret la mu ne ko am ah, noppal waay mu ne ko déedéet am moret laa am moret du civilisé du civilisé mm-hmm. Cheikh Ibra daal di daal di xëcc son euh, teg ko di daw ñëw ba ci pénc mi ba ci kër gi kër gu mag mu jël dënn bi ne ko rës ma ne ko doonutoon Cheikh Ibra ci ndigalul sëñ Touba ma ne sa ñaari tànk nga ne ko réel ci suuf sama bàyyi di wax ci maandoom maandu Cheikhul Khadim mu ne délégation ba juróom-ñeenti nit lañ waaye mu ooma mu ne jël e, cere dafa maandu ba cere yi may lekk ña koy togg fa même nañ koy bayee xam na ko ci lew lew lew ci lalam bi la ko teg mu ne mu sëkk tef tef daal di sotti ndox daal di jël peñu suukar na Ibra Faal mu daw ñëw ne Mbàkke mu ne ko dimbale ma ci peñ bi mu jël mu ne loxoom bi sama bàyyi wax de mu ne loxoom bi comme jaas yi tëll mu xar ci digg bi loolu ko ko man mu ne ko way ko mu jëlaat na tal mu daal daal ci digg bi mu ko baax na mu ne waaw mu ño daal daal di mar la la li desoon ci ci ci mu ne ñii ñetti baaraamam la lekk lekk ba mu pare mu ne ko doom kaay mos neexut de waaye lew na doom lu neex laa ngi ñëw voilà lu neex laa lu neex laa ngi ñëw waaw léegi nag mu dal di teste ko ci xam-xam noo def ak nàngam mu ne nàngam bay noo def ak nàngam ne nàngam noo def nàngam mu mu ne ko mata jiti jite soo bàyyi ne jitu fi midi mu ne ko laa tastaamil hadihi lkalima li annaha nasraniyatu l asl qul fi zawal <laughs> mu rectifié sama baay donc bul waxati midi sama baay ne dafa bañ tubaab ba baatu tubaab yi xanaa bu gisoon xale yi naan baal leen ma man dégguma olof ah, parce que xam nga xam nga ndof a ngi ci loolu ñu nàmpal olof ngeen am baal leen ma man samay olof leerul Cheikhul Khadim daal di wax daal di oo nee na sëñ Modou Moustapha Mouhamadou Moustapha mu ñëw Mouhamadou Fadel mu ñëw sëñ Modou Moustapha nuyu sama baay sëñ fàllu jël loxoom sëñ tubaa ne ko tegal ci kaw muy ñett sëñ tubaa jël beneen loxoom teg ko ci muy ñeent muy gësëm naan na ngeen ànd nangeen ngeen ànd tey ak ëllëg man ak Ahmed Khalifa ñun loolu mooy suñ mission keroog bi doom ji ñëwee ma ne ko nu may tudd mu ne ma sëñ tubaa ma ne ko billaahi bu fi sa baay ne woon dana bég dana kontaan mu ne ma jox naa la oto wallaay day may dégg jox naa la oto ma ne ko ah, ma ne ko tudd naa doom ba xam na ne li tax na suñ tubaab kenn. tëf naa ba tàyyi nag. waaw nodd naa fii lëkkaam waaye kenn mënumaa jox mësumaa jox oto ci tudd. moom mos naa am <laughs> walaay walaay walaay loolu laa ko. maanaam euh, loolu. ilayya buñ ma mayee ma ñëw ci ilayya. Mm-hmm. ilayya ilayya qaadallahu parce que contrekat yi dafa mas a kilifa gu gu ne mën naa jàng ne ma sawaa ji day bàkko. sawaa ji day bàkko. ma ne kan mu ne ma sëñ Tuubaa ah, ma naan ah alhamdulilah rabbil alamin ma waxoon yow day kafe gi moom kafa naanoo naanantuwoo ci <laughs> ah kuñ jël dee na sëñ sëñ Tuubaa mooy mooy sa waay sa waay ji day bàkku ma ne ma ne déggu ma naan ilayya qaadallaahu ilayya qaadallaahu dañ ko ko imposé si maanaam ah français day wax sujet verbe complement d'objet direct arabe di wax verbe sujet complement boo jëlee complement xam nga moo war a mujj mu jiitu xam nga la la firi ilayya xaadallaahu ilayya waaye bu ne ilayya mooy man kot dong rekk only xaada la ommatee allahu yàlla ilayya lim ma jox man rekk la ko jox te mësu koo jox keneen walla yakunu abadan te dootu ko jox keneen pour kuy bugg a wuti feneen xalwaak nangama nangam toogal noppalu ni ko defee ci ci ci ci ci ci ci ci maanaam ci arab ni muy foyee langue ak ni ko déggee man gëw ne kenn jàngal na ko allama nil alim la wax ci baatub alim ci turu yàlla yi mag yi mii jàngale moom mooy yàlla moom moo ko jàngale ilayya qaadallahu maa lam yakuni te wala yakunu abadan lil mumkini soo bàyyi ma maanaam maanaam ñi wax ne moo baax ñi ko tagg ci xam-xam wax naa ne démb sëriñ Maaxi Ibrahim Niass xam nga soxnaam su magam moog Ahmed Khalifa ñoo bokk ndey ak baay ñu am ca doom ñu may ko Maaxi Cissé dama ne ko sa firi alquran mi mu jóg taxaw ne ma arab yi est-ce que rek laay dégg waaye yow yow boo ne ma sa firi mi dox na ma xam ne doo nitu caaxaan ki ko wax moo tax maanaam so kii wax ne wax xasida bi kii wax Cheikh Ahmad Bamba laa wax mu sëñ Tuubaa daal di ekkati kitaabul Jalaalayni jox ko sama baay ne ko joxal ma ko sa baay ne ko suma mag ji lim fi nekkee woon dama koy yokk waaye dama ko wàññi leetar booba ma nga fële mi ngi mi ngi lew na ñeseen suma bàyyi sukk jël xalimba naan ko la ma ci gën a intéressé ataytana bi kitaabin laa nazira lahu arwa galila sadana baada luwaahi huwa aljalalaani tafsirun li mansibikum yow yaay kan sama bàyyi ne sëñ Tuubaa mooy misbaaxu ilmin ka dawi subhi lamaai cheikhun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama sanaa'i bi mutrihi wa amdaahi jazaka anna ilahu alaalamina faqad ahyayta min manhajin fi lurfi waddaahi waddaahi muy niru lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarraa wa inni ahmadu man sëñ Muntaxa de man li ma gën ma ñëw li ma gën a neex ci mbiram jël sëriñ si def leen ay ay écrit eh, yan dimbale ma jël ah jël jël ay kiiwu làmb duñ koy tuddee ay écrit ay écrit loolu dindi na ko bi loolu amut benn nga xasida bi sama bàyyi moo tax man fu ñu waxee naan ma danga maa ngi nuyu waa Daaru Musti Daaru Musti dañ may invité ci seen conférence di ma defal teraanga wax naa la ba ma fa njëkkee dem euh, ba pare fala ma yàlla njëkk a wane Cheikh Cheikh Ahmad Bamba ndeysaan ma reer ñu tëdd ci lal bi nelaw Cheikh Ahmad Bamba ñëw jël sajaada bi lemal ma ko tàllalal ma ko na mes fu ne dem naa fa nag waaye Daaru Musti la ma ko yàlla wane xam nga mbir mi cofeel cofeel dafa am solo bëri na ko takk xàpp gëmu dara waaw dafay wax nangam dama dama dem Mbàkke gis fa suñ benn taalibe mu ne ma waaw photo sëñ Touba bi laa fi def waaye man yéene suma sëriñ man ne ko damaa dem ba Italie ñu jël photo sëñ Touba de tan sëñ Touba wabeene wabeene pour bëgg a jaarale koy réew boo ko defee boo ko defee da nga wàcc en tout cas mooy moo en tout mooy yëf te nga léegi damaa bëgg bala ngaa pare foofu numéro am laa bëgg a joxe en direct yi mu wax ci maam Abdoulaye nga xam ni maam Khalifa nga am audace. ak xol bu leer. sëñ Tuubaa moo ne yàlla moo ma tabbal ci borom xol bu sell. waaw waaw man sa xajuma ci borom xol bu takk. wallaay ku am fulla la. koo gis ñu ne la jubluwu ko rek xamal ne xol ba sañ bi du ca tàbbi. Mhm. ndax too togg sa ñam ba mu ñor di ko yekk ci bool bu takk. déedéet. déedéet. moo ne aslaha zahir yi add xalte nii fii xal bi kullu si salah wa kuntalii ilal jinaani bi falaa léegi nag xol bu sell boobu ak ñi ngi koy génnee benn baat li nga wax yépp benn ma ci neex man bëgg gi ma bëgg sëñ tubaa bëgg sëñ tubaa moom dafa doy sëkk maanaam tawféexi àddina ak alaaxira ma bëgg mbokk yi seetaan nañ ma ko defalal addiyee ba ba ba ba numéro bi sax plafonné mbaa am na jumtukaay googu bi ñuy def bi ñuy tàbbal xaalis waaw waaw waaw am na waaw waaw mu ngoog nañ ko ci def numéro mooy 77 waaw numéro sëñ arabi waaw 321 18 99 waaw 321 18 99 ku ci tàbbal dara da nga naan def naa ko addee sëñ Touba ku ci tàbbal dara rek na nga wax ne def naa ko addee sëñ Touba numéro sëñ arabi Niass mooy 77 321 18 99 moom imam la dafay jiite sëñ xaadim mu bàyyi taxawaay bi mu am foofu ñëw ci guddi gi ak âge bi mu toll ngir fas yéenee dundam nun guddi gi waxtaani sëñ tubaa gone yu xonq coru ñoo jóge Arabie Saoudi bërki démb koo ci laaj sëñ tubaa mu ne xaw ma ci lu bari te mën ñoo nettali ñeneen ñoo xam ne xamuñu fu ñu jóge ci àddina ak fu ñu bawoo âge bi mu am mu nekk professeur jàng ba traité sol dàllam dem ba am wàcc waay yu mu am ci sëñ tubaa sëñ tubaa dina la fay àddina galaax moo tax damaa bëgg nañ jël numéro am 77 321 18 99 waaw sëñ Xaadim waaw dëgg la dëgg la. la dëgg la jërëjëf euh, maa ngi jot léegi message su soxna Momy Kébé mi ngi lay encouragé di sëñ ab laay ndeysaan nee na da bàyyi ba nga noppi. waaw euh, sëñ Ahmed benn Mbackiou Faye euh, di petit. jox na la addiya piis promobile bu ànd ak ak crédit am. la ñu ngi koy sant bu baax xam ngeen ne promobile moom lanu àndal ci. Euh, li nga xam ne ni mooy euh, jataay bii nga xam ne moom la Touba TV di leen amal euh, guddi gu jot ginnaaw naa fi la Masaalikul Jinaan fas ko yéene àndandoog yéen di leen accompagner. ma ci oo ñëpp nag bii mu ubbee man sama anniversaire maa ngi ñaan àdduna ñëpp ñu jël ndax sama baay dafa dem jaale ji sëñ Fallou. sëñ Mourou Moussa Ba ba mu mu ñëwee ci laa judd muy soixante quinze mhm. soixante quinze ans boobu mooy soixante mooy <laughs> mooy soixante quinze mooy soixante quinze nuyu mhm. mbàkk yu fay xam nga li tax tudduma ko ah léeg-léeg mu dugalal ma cinq cent mille ba pare nag ne ma bëgguma kenn yëg ko dama koo def ngir yàlla ma ne ko in tubdu sadaqaati nag fa ne maa kon nu ma koy def la ca topp man itteelu ma in tubdu sadaqaat fa ne yàlla ne bu la defalee dara nga wax ko ma dem ba toog ak sëñ Muntaqa daal di ko koy nettali ne ko sëñ Mbàkke yu fay day li may jox ci téeméer junni xaw ma xaw xaw ma nu nu nu nu nu muy mel te yaa ma ñaanaloon genn ñaan dama toog rek mu ne ma waftax lanaa kulla baabin kunta faatiha ba mu ngi Jurbel <coughs> ba pare bi may dugal ci porte bi <coughs> trois minutes ci porte bi même pas cinq mètres am ku ma téléphoné kooku sëñ Arabi Ñas ma ne waaw ñàngal mu ne ma sëriñ Béye Thioune moo ñu yónni ñooy jox nag wii bu koor la woon ma ñëw dëppaat ne ko sëñ bi si ñaaw di gis ñaar gi gaaw ren yi mhm. mu ne ma dangaa dëggu waaw dégg nga waxe sëñ mu dëgg sëñ bi dangaa dëggu ndax fi nga bokk mhm. par parloo nangam nangamoo mhm. nga nangul sëñ Tuubaa looloo tax maa maanaam mu gën a am connexion waaye yoon wi moom ku ko bëgg ku ko bëggut ku ko mën a wax ci kaw comme man ba tax sa mbokk yépp mere la man ak Ahmedou carrément parce que dañu mel ci sëñ Tuubaa ak ku ko mënta wax da nga wéet foo nekkul ne murid yi rekk ñoo fi am taalibe boo fi xasee Baay Faal léegi-léegi nit jëfandikoo ci yow jëfi Baay Faal waaye doo wax Baay Njaay danga naan diw suma Baay Faal la da ngay àbbi sëñ Tuubaa Baay Faal <laughs> dégg li ma wax mhm. boo ne bàyyi jóob du jub waaye diw suma bàyyi faala toujours ngeen dégg ko waaye kon nag lim ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini allahu akbar daal daal yëpp am na am na feneen foo xam sax daf ne ilayya qaada allahu ma lam waaye wala yakunu li siwaaya bi kuni wallahi wallahi sadika sadika Bakour da da dañ dañ ko jox ne ko annonceel fonction biñ la jox bu ko kenn laajati ku ko laajati doo ko am maanaam màggal Tuuba lum tombet mu yàqu ku weddi laajal gouvernement bi maa ngi nuyu foofu nag la première dame nga xam ne sama jarbaat la mhm. ca di ko ñaanal yàlla ci barke mhm. Sëñ Tuuba tey 1978 mhm. laa njëkk a defal yaayam conférence Euh, ci ci ci ci ci ndar. Mhm. waaw. alaaj mbàkk yu nee na mi ngi lay ziyaare. waaw nee mi ngi lay ziyaare nee na mi ngi lay topp nee na foofu nga nekk daal bu fa jógee <laughs> eh. waaw waaw ngi koy ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. léegi rek bi ñu nekkee këram. ci loolu lañ doon waxtaan. waaw niveau bi. mustawaa bi. Mm. mooy Cheikhul Khadim. Mm. ku yàlla bind nga am xol. am ruu di yëg. Mm. war nga ko mën a consommer. bul ko consommer sax ci bu la neexee bu tarixatul muridiya mm-hmm. bu la neexee karaamaat bu la neexee yooyu yëpp bu d'accord mais consommer ko ci njàmbaaram wallahi wallahi njàmbaaram mooy tubaab yi dafa jotul sëkk ñu jële leen fi mm-hmm. te diggam ak tubaab bi danoo jàkkaarloo ne runkum mm-hmm. kii ne ko bu fi toog kii ne ko dinaa fi toog ñu dugg ci xur yi génn kañ tere dellu ca lañ ko doon tere ka doon tere tereetul parce que lañ ko doon tere moom ba tey mi ngi dox soo jàppee télévision bii vingt une heures vingt deux heures. Mhm. Touba fi la. waaw Daaru Musti dinaa fi la. wallaahi wallaahi Daaru Xuddoos. wallaahi wallaahi Daaru Salaam. wallaahi Masaalikul Jinaan. ñuy naafi la ci araf yoo xam ne mën nga koo topp ba mu jeex doo gis loo corrigé jaaraama Cheikhul Khadim loolu sëñ Tuubaa moo ko liggéey mhm. moo tax dinaa ci ñëwaat léegi ci beneen langue en tout cas numéro baa ngi noonu bu ko kenn woo nag xam naa gaañe nañu xër xër xeetu moom muccoon gi tam ñu commencé di ko woo ay appel bu leen ko woo téléphone Wave ak Orange Money nañ ma baal ci publicité bi sëñ Jibril Ndaw lépp numéro bi am nañ ko damaa bëgg daal mu fees dell sëñ Xabaan bala maa del si ci sëñ Ablaay dañuy yëkkatil ay abyaat sëñ Ablaay door a ñëw ak ci sëñ Fàllu ci sëñ ndax bëgg naa benn aaye bu ma bëgg nga leeral ma ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan kooku sëñ Fàllu ti faaw mu ñëw ci ak yow euh, kon damay bàyyi sëñ xaban euh, mu daal di ñuy ubbil xasida Euh, su ko defee ñu daal di euh, continuer ak jataay bi ak imam euh, Cheikh Ahmad Arabi Niass ñu yaar ziar baax Cheikh Ahmad Khalifa Niass ndax moom itam tuwaar kàlla cëram ci digganteem ak alaaji Mbàkke yu fey rawatina ci télévision Touba TV mm. nekk koo xam daf may wax ne fu ngeen ma soxlaa dama ko ma sawoo téléphone di ko laaj ne ko dama bëgg nu waxtaanee sëñ tubaa léegi nag suñu waxtaan yu expliqué ko ni muy demee mun a ma man daal yow daal bul am complexe laaj ma leen man mii daal awma benn complexe tontu la ci leen kon yow bul am benn loola barrage nga di ma ko laaj ma ne ko tey bi ma jël ko ci télé bi ne ko tey boo doon joxe rang gi sëriñ bi toll ban position nga koy jox mu ne ma da koy génn ci rang gi ba noppi door a waxtaan ak ñi ci rang kon noo ngi koy ziyaare docteur di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq sëñ Xaban bismillah بربك الذي كفيته المنام إليك يا خير البرية السلام حكيمك الذي كفيته المنام صلى عليك أقبل مع السلام في الآي والنسعى بربنا السلام واجتمع أخرجنا من السلام بكل نور من حباك بالكلام بصرك جميل يا خير إمام بما نويت فيك زهن ذا تمام أنت النبي والرسول والحمام بك انقياد سالقين بالسمام لك رداب ربي الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى ترام جادل لنا جادل لنا جادل لنا باقل تعالى عن منام بك فانت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كلها وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكرا عليك بالقلام وقرها يا ذا جامي الكرام هديتي أشكر من بالانشرام يا قائدا لملاهك المرام تبتي ربي سائرا بسنسام لك وحبن حبوت بقسام hum fiha xaaliduuna hadiyati ila jumaada saaniya min almuharram tufudaaniya hum fiha xaaliduuna hadiyati ila jumaada saaniya من المحرم والدفدانية ملك للماهي هدايا كافية كل عزم قين عين كافية فردته بقدم لا ثانية لها من القدام ليست فانية يسر سيد حروف الداخية إلى جناني إليها ساقية هديتي إلى نبي سافية بسهات لها قرن دافية إن قلامي بالنبي الهادية إلا جناني من خلاق بادية خدمة قيل حال من جالية خاليني فدهمن قاليا أحمدنا أحمدنا أحمدنا ربة جهن قاليا تغلي وتفي قاليا لأمر مجاري فتقافية قافية تدوم ليس قافية تدر المجاري درجة المختار ليس لقافية إذ الحياة لعبادي سافية ودي لربي وله لقاسية على أنا وحدي لسنة الناسية ناجت فيه الجمعة ثانية من المحرم ميلادانية وإنه لكتاب عسيس لهم محفلة warisun karimun wa idxila jannata faqad faasa falillahi laqit wal ula falillahi laqit wal ula wajjahtu wajhi bitilawati kitab limaliki wa atadi xayra sawab alhamdulillahi alhamdulillahi lazi qad manam الحمد لله الذي قد منام بقريسكم خير مسحنا نذكر ربنا الذي تقبل مني تلاوة كتاب أنزله نذكره على توجه الدرل إلى سوانا وكفنا من حضر هدى ونور ويدنا بركة في سكي من باتفاء مدركة هدى ونور ويدنا بركة في شكري من بدفاع مدركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى ذكر حكيم يغني هل المدافع بحس المغني كون من هب الله كون من هب الله سيد الورى كون من هب الله سيد الورى كون من هب الله سيد الورى بان لكم الهجاح نورا توسلي بالمصطفى مفدلي لي خال تقديما من المفدل توسلي بالمصطفى مفدل لي خال تقديما من المفدل إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البصره إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك أخاس الفقراء إن رسول الله فاق البصر إن رسول الله فاق البصر والجن والأملاك أخاس الفقراء إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك أخاس الفقراء ملكوت الكتاب أبتوني حديما مجهول الكون أين في القرآن قبل كلما لم يسرى لي والسماء زدت مكات وزوات حددي لله ويرسلي وتنقدي يقول باقي دواما ما أوت إلا جناد دين الكبدي سادي الباقي بصرة تدوم في سورة أنفى بصر كريم سادي الباقي مسرة تدوم في سورة أنفى حد بصر كريم لله ما كتبته من جيسس لله ما كتبته من جيسس لله ما كتبته كتبته من جيسس ولرسوله لقتل جيسس lillahi lillahi lillahi ma katabtuhu min jaysatin way rasuli qatli jassasi hadiyatan min rabbi sakur way nabi qaddiman sa sukur min lillahi way rasuli way sisa wal qabmin taksasin ila dukhulil janna إلى دخول الجنة خطيب بلا أسن وخير فتنة من دكسس إلى دخول الجنة خطيب بلا أسن وخير فتنة حنيت بيساو الأجور وبسوابه أن أسدون في الدمهد وبيرابه وين فائس أو ساله في الدمهد وبيرابه وين فائس أو ساله لنقاة الأجور wal masalihu ku sopp Serigne Saliou Mbacké li xaat ujur masalihu ku sopp Serigne Saliou Mbacké li xaatu ujuru wal masalihu bi tey salihu li xaatu ujuru wal masalihu wal masalihu Serigne wa inni ku sopp Serigne Saliou jambaaja li xaatu ujur masalihu ana waa kër Serigne Saliou Mbacké bi tey wajas bi wa inni salihu an daxatu fi jayb rasuli kulliya salla alayhi man ajjal kulliya diini kitaabu Moustapha laa xir laa xir Moustapha laa xir Moustapha Moustapha Moustapha laa xir laa xir diini kitaabu Moustapha laa xir Moustapha laa xir Moustapha Moustapha laa xir diini kitaabu Moustapha laa xir wa yantahi illaa suwaydiru Guèye Mourou Xabane Guèye am na solo lool ndax diinu ah, diin ya diinul Moustapha laa xayru yàlla na la suñ suñ borom gën a taxaw maa ngi gis léegi ci eh, commentaire yi nit ñi di wax yaa ngi ñuy fàttali Baay Omar yàlla yàlla dolli ay leeram yàlla na yàlla dolli nu ay leeram eh, kan moo yor numéro sëñ arabe bi ko yor téléphone am waaw eh, mu xool ko bu baax contrôler ko waaw bu ko defee tubaarkàlla liggéey baa ngi am solo maa ngi am mbokki taal bi yoo xam ne maa ngi bëgg ci ñoom bëgguma tudd seen tur waaye yéen moom jàmbaar ngeen tubaar lool la sona Njaay si bi jërëjëf euh, maa ngi lay sant bu baax di la gërëm noonu la nañ ko teral te sëñ Tuubaa rek tax euh, maa ngi ziyaare bu baax a baax euh, sëñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma xam ngeen ne war nañu fee def benn plateau ci laytul xadar gi parce que yéen di fàttaliku jàmbaar jooju soxna ba nga mënatu Mbacke bintu Xaadimu Rasuul Eh, di ziare sëriñ Ibra Mbacke xalifab sëriñ Abibu moom sëriñ Manumbe moom mi ngi waajal gi laytul xadar gi fële ca paas di nuyu sëñ Mamor Mbacke sëriñ Abibu mi ngi woote rek ndeysaan di message dina ma ziaral ma sëñ Ablaye sëñ Arabi ak sëñ Xaban ak sëñ Xaadim Kebe ne ma tey samay xarit rek nga dalal waaye nag Mbacke yow maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lay ñaanal yàlla dooleel la kattan eh, di ziare sëñ Modou Mbacke am sëriñ Abibu moom it mi ngi yónnee ay bataaxal eh, moom ñu ngi koy ziar baax sëñ Moustapha Mbacke Abibu porte parole sëñ Cheikh Euh, ak njaboot gépp noo ngi leen di euh, ziyaare bu baax a baax a baax euh, di nuyu sëriñ Ahmed Saloum Dieng moom it ku ne xam na digganteem ak jëruñ alaaji Mbàkke yu fay mi ngi waajal bisam bu am solo boobu nga xam ne la deux muy concours bi nga xam ne doon na ko def incha allah foofee ca Thiès nee na mi ngi koy yaatal bu baax a baax di nuyu sëriñ Samba jaw nga xam mooy coordonnateur général jëwriñu daayira yi nga xam ñoo nekk fii ci Ndakaaru ñu ma yónnee ay nuyoo am solo soxna Seyna bu Caam moom Sëriñ Abdul Akim nee na ma nel imam arabi eh, tubaarkàlla fi mu jàpp moom kéemaan la ñu ngi koy ñaanal baax moom itam madame Ndiaye eh, di nuyu monsieur le ministre Mbaye Ndiaye di ziare course ak waa kër ga yëpp tubaarkàlla eh, soxna Ndeela ñu ngi koy nuyu baax ak madame Sow Palme Bus ñu ngi koy nuyu su Souley Diagne sunu xarit sëñ Xaadim Taal maître Bay di Mbay maa ngi koy ziare fii ci HLM ak sama yaay soxna Musli kenn soxna Adama ak waa kër ga yëpp di nuyu Cheikh Ahmad Tidiane Ba directeur général CDC di ko ñaanal yàlla ak Cheikh mun Muntaxa taxawu ko may ko li mu bëgg liggéey ci Medina mu defee ko ni mu ko soobee ñu ngi koy ziar baax Cheikh Ahmad Tidiane Ba di ko ñaanal yàlla ko euh, su ko defee sëñ Ablaye sëñ sëñ Dame am na élément bu ma doon wax léegi boo xam ne nii wax naa ko léegi bi may tàmbali ci sëñ Abdou samat muy Daarul ma naan xam nga ubbi nga ci mu indi woon coow ya lal boobu moom la ñuy moom lañ leen di won nii euh, yàlla baaxee sëñ Abdou samat gis nga ko noonu néeg la ko tabaxal bu murite di ko def parfum taxawu ko taxawaay bu am solo ngir fàttali koo ko barkeeloo ko ko ngir lal bii moo indi woon coow li nga xam ne nii mooy lal weñ bu bula boobu ci ginnaaw moom la ardo bi làmboon ñëw daarul ma naan ci la mbaaxaan waxoon ak yu baree bari gouverneur ñëw ñu war a tasaare kër ga ngir jàppoon ne ay armo la dajale ngir fas yéene jihaad ndekete booba lal yi la jëndaloo woon Serigne Gaawaan maam Cheikh Anta maam Cheikh Rahima Fall ak Cheikh Amadou Ndoumbe Xabban gis nga noonu Serigne bi fii ay mbubba ngi fi yoo xam ne ni tubaarkàlla Eh, sëriñ bi jox nañ ci ay barkeel yu am solo di ko ñaanal moom itam yàlla guddal fanam muy sëriñ Abdou Samad ci taxawaay bu am solo boobu def na ma mbégte la ci jamono jii ndax eh, weeru koor wi ñu nekk bi dafa war a saawaan baawaan nga ko noonu moog sëriñ Moustapha Diop Taysir ñu ngi ziyaare waale baax sëriñ Cheikh eh, yi nga xam ne ñoom lañ fi fekkoon ñoom ñëpp tubaarkàlla di ñaanal baax Cheikh Abdou Samad am na kàddu yu am solo yu mu fi yëkkati jombul danañ sëñ arab yi bu yemoon ci illa ya xaadallaahu maalam yeku nii wala yakunu abadan li mumkini mën nañ ca jeexal guddi gi ndax wax waxam waxam wayam wu ne dafay fees dell dañ koy peese mu fees waaye sëñ euh, sëñ fàllu inna xibaadi laysa lakka alayhim sultaanun xas dëgg mi ngi tàmbalee ayasa minillaahu inda jeewali su sëñ Ablaay leerale aaya bi damaa bëgg nga ne cas xasida gi tey nag gisuma gis naa ne tàngu xaw ma da ngaa naanul café xaw ma sëñ seex mun la dafa am lu mu la kii ci suuf xam nga seex da lay def di la dóor ay affaire mais na sa xel dal tey kilifa ak sëñ Cheikh Ngounda fi ne sëñ Xaadim Kebe yaa ngi ci wetam yow yëngul rek tubaarkàlla sëñ Ablaye ma bàyyi la jëmmi aay bi rek nga may leeralal am na lu mu tekki bala ñoo ñëw ci jëmmi xaside gi sëñ Thierno Diop mhm. yàlla mooy ak saay xam nga ibliis fu nit taxaw tey jii di fa pookare jaamu yàlla wala nga fay taxaw di fa mooy moom su jóotal na fa yàlla boroomam day mag moo xam ne ko yàgg a jaamu yàlla la mu yaroo nag ci peggu malaayka yi moom iblis boo demee ci téere sëñ Musaa Ka bu ñuy wax wasiyatu niswaan xam naa du mat temps bi waaye histoire lépp a nga fa ni mu juddoo ci diggante jinne yoo xam ne daan sàgganu malaayka yi bi yàlla yebalee malaayka yi ñu faagaagal ñu ko doon mooy ci àdduna jinne yi doon mooy bi ñuy dem nag lañ ci bàyyi benn xaleel jinne bu jigéen mu yaroo nag ci diiwaanu malaayka yi fi ñuy sàbbaale seen borom ndax mooy seen lekk di seen naan foofu malaayka yi nag di sàbbaale mu leen di faral di sàgganu ci seen biir ñu laaxan ko sunu boroom mu ne bu ngeen ci tolleetee na ngeen jël jumu sawara def ko ci pëyam noonu la ëmbee ëmb sawara ba mu juddoo nag yaroo ci seen biir màgge ci seen biir tax nag mu mën a jaamoo yàlla ni ko kenn mënul fu ne mu taxaw fa su jóotal fa yàlla ba sunu boroom nag nam ma sàkk doomu aadama maam aadama mi nga xam mooy maamu ñépp sunu boroom sàkk ko mm-hmm. jaamub yàlla la moo tax sax bi mbokk yële exagéré ëppal ci yonentu yàlla Isa bëgg koo def yàlla te muy wax ju metti sunu borom mu ni inna masala Isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turabin suma qaala lahu kun fa yakun ci sootu ali imran ñoo yem wàccuwaay rek samay jaam lañu maa leen amal aadama moomu nag leerug yanantu bi alayhi salaatu wasalaam jee tax mu gën ci biir gënug yanantu bi gën ñépp moo tax nag iblis am lu ko metti ñu ko yàlla ni su jóotalal maam aadama su jóotalal maam aadama xam nga tey sëñ xaamidun ku jàng ba xam ni ñuy tàppee ci machine jàng ba mën a jëfandiku ci ordinateur nekk script boo xam ne bindam day leer nañ du am fët nekk ku agrégé ci xam-xam nekk ku sawar teg ci du mooy sa benn yónnin loo ko sant mu def loo ko tere mu bàyyi loo bëgg ma taxaw ci. bi xëy heure du ab santé soo amee problème mu jaxasoo. sandam lay wut liggéeyal la nag ay ati ati at nga koy fay cinquante franc. fukki dërëm xëy suba gis ko taayeel mënta bind mënta liir mënta jëfandikoo ordinateur sawarul bu liggéeyee tey noppalu fukki fan dëkke tooñ. loo ko wax mu jéebaane la di la yàqal sa liggéey hmm. di surga buy saboote hmm. nga xëcc ko tey teg ko ci kaw ngeen doon fay hmm. te mu sonnoon loolu di ko fay cinquante francs nga xëcc yaafus bii di ko fay deux cent cinquante mille ak heure supplémentaire ku njëkk ki su amul dëgër suuf si xolam dina tàng loolu mooy diggante iblis ak maam aadama iblis nag ne yàlla man li ma def ak li ma la jaamoo fi ma taxaw yépp nga may jënd kii ku ki démb kii maanaam mën naa ko sujjootal sunu borom ni ko loolooy sama ndigal sujjootal ko. aywa kon. laysa laka sultaan inna hibaadi إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سلم الله نجي ولي إبليس إسنا ديته يا ولي أيسمن الله هندجي ولي إبليس ناديته بأولي ناديته بأولي إبليس ناديته بأولي إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيسر من الله إنها جولي إبليس ناديته يا ولي borom bi ne ko su jootalal maam aadama mu mer nag ndax ci daa pare moo gën rëy dugg mu gis boppam ni ko kii bi ma koy bi ma lay jaamu jaamoogu la juddoogul sax nga bëgg maa teg ci suufam ma koy sujjootal maa bañ du ma sujjoot malaayka yépp nangu sujjóot ba mu des moom mu bañ sunu boroom nag mere ko ni ko génnal ci sama nguur bis ni ki tey rëbb naa la mu ne nag yàlla rëbb nga ma de waaye ku bari pexe la ndax yow doo seetaan kenn ku la liggéey danga may fay kon nag di nga ma fayee defal ma njaayal goo xam ni soo may lakk ëllëg it dinaa yóbbuwaale ñu bëree bari yàqal leen yaa leen sànq dootuñu la sant dootuñu la topp bu may lakk dinaa beewloo ñu bari sunu boroom nag ne ko inna ibadi laysa laysa laka alayhim sultaanu inna ibadi sama jaam yi laysa lakum alayhi sultaanun sama jaam yi nga xam ni gërëm naa leen ñoom ñooñu mënu am pouvoir ba am ko ci seen kaw lu dul boog ñi nar a topp la inna hibaadi laysa laka xalihim sultaan sama jaa sama jaam yi nga xam ne gërëm naa leen man yàlla du nu beew mukk topp la inna hibaadi laysa déedéet inna hibaadi samay jaam doo am mukk pouvoir ci jaam yi nga xam ne man yàlla gërëm naa leen wali sëriñ Touba bokk ca ñooña nag daal ciy tëgg xasida ga araf yooyu araf wu ne mu def ci bayit mooy xasida ak ayasa minillah inda jeew ayasa minillah inda jeewali iblisa is naadaytahu biyaa wali yàlla naagaloona iblis ci samay mbir mënatul ci dara baytuhu biyaawali nu ni mbàkke la ko yàlla naaguloo ci say mbir mu ni ba ma taxawee ca jeewal woo turu sama borom ci la ko naagaloo mu perte sama mbir nafaali xayrallah mu ni yàlla jariñ na ma moom yàlla ba may jariñ nag booba jamono la ma dàqal iblis avant may egg ndar bi ahli badrin al usodi kadr dàqal la ma iblis mi ñëpp ragal man xaadim rasul lu jiitu may egg ndar ci daraja waa asxaabul badar nafaal xayrullah xaaruha fi ndari ahli Seexul Xadim nee na yàlla dàqal na ma Iblis ak kuréelam lu jiitu may egg ndar ci laa leen gañe lu jiitu may egg Dakar yàlla dàqal na ma lépp luy coon ak lor avant may teg sama tànk dakaar yàlla dàqal na ma pexe ñu nas yépp avant may àgg Dakar قل أذن لي pexe yan noonu yi doon nas avant may egg dakaar la ma ko yàlla effacé la. la man rahmaanu fii safina. le 21 tam bi ma tàbbee ci biir bato bi la ma yàlla mi aji xam ji xamal. bien na ni xadim xadim fil madina loolu la xamal mu ne xam nani xadim fil madina lu la yàlla xamal mu ne xamal na ma ni man mii maay xaadimu rasul maay liggéeyal ka tëdd ca madinatul munawwara annani xadimu sil madina nee na maay liggéeyal annani xadimu sil madina bi ma sóoboo ci bato bi la ma yàlla xamal ni maay liggéeyal Moustapha bara anillahu la daa konaakiri yàlla bi ma tollee konaakiri la ma yàlla génne min kulli jaalibin ilal manaakiri ci lépp loo xam day ñoddi lu yàlla tere asabahanillahu fi karam basan waaye yàlla defal naa bi ma tollee ci grand basan xamru mubaarisi wa xal lu ma fa defal dama dàqal ki doon léewtoog man ci bi ma tollee ci grand bassa ku ko doon saboote la daaneel rayim dafa am lu ñu tere woon sëñ Touba muy misk bu ñu ko joxoon tubaab bi ni ko doo ko jëfandikoo mu ni bi may tollu daw me delloo nañ ma ko moom yàlla ci ay addiye yu ñu ma fa jox kon bu fekkoon lu ma metti la bi ma tollee ci daw me la ma yàlla delloo loo xam ne fàtteloo na ma liñ ma xañoon yasaratil mun naa mooy capitalu Gabon bi ma ci tollee la ma yàlla yombalal loo xam ne benn wàllu yu amu ko yasaratil xam nga luy loolu mooy asxaabul badar ñoo koy gunge fekk ko foofa man yàlla yombalal na ma samay mbir ci Libreville moom yàlla mi ma wommatal lu mësta wommatal benn wàllu yi lii xaada ëxla badrin al usoda nee na yàlla wommatal asxaabul badar ñi nga xam ni ñoom ñooy gaynday man sa sal waasiya wal xasuda mu dàqal ma ña nga xam ñoom ma doon rambaaji ak di ma yàqal aysu akunu laaw fu ma nekkati aysu akunu fu ma mën di nekk yàlla damay wammatal sëkkëre laa ilaha illallah tabsira laa ilaha illallah di ma wammatal tam mbégte mi mu def ci biir laa ilaha illallah saxali xayr law fii ma yomba ba ma tollee ca maa yomba ca àll boobu cinq ans ca la may yàlla wammatale ma fa xalbiya wal janda lan moo ma metti woon dañu foofa la ma yàlla faye li ma metti woon mooy jumaam ji ñu doon saboote muy bant yu mu samp faye nañ ko ko tey jumaa yu bari mu ne kon la ma metti woon ci jumaa yu ñu saboote fa la ma ko yàlla faye la ma metti woon dem na te yëkkatil na ma sama édifice mooy sama jumaa ji lillahi qad wasaltu hindagal waa nee na ci galwaa nag ay xeet lañu ca laa àgge ci yàlla rëkk-rëkk moom yàlla sama borom yàlla fegal ma ay nattu kitaabati xablu la dal buhóori yii may bind nag bind naa ko lu jiitu samay tàbbi ci biir géej ga kafat xayaati yàllal mad yooyu ma bind nag ñii samay bind ñoo ma fegal pexe yi nga xam ne ñi beew ñoo ma ko doon pexe la man yu yàlla mi aji xam xamal na ma ci seen gó géej yu xóot ya foofee tam la ma fegale pexe yi nga xam pexe yi weddi yàlla la ci biir géej yooyu dootul dëgmal mukk ci man sëñ Touba ca géej yooye nga xam ni géej yuy labal la tubaab bu beew bay naan sàngara dootuma dëgmal wala koy wedd yàlla ba indal mulikat ma saanani hanjali yàlla yombalal na samay mbir taxawul ma boppam moom mi aji rafet ji yoon bi ma nekkee ci géej gi nga xam day sànkaate di alal may may yàlla mi nga xam ni mooy aji may ji foofee la jàppandee ci man ci géej yooyee ca lëndëm lëndëm ya mu may ma fa ay leer yoo xam ni aji jolli lañu ca biir géej gi yàlla may na ma fa ay leer ca palaasu lëndëm lëndëm yooya yàlla bi ma fegal ay njàqare ak yi tiis moo ma dàqal wéy yooya sama texe nag ame naa ko ca sama borom ginnaaw ba ma nekkee foofee ak ñoom dara sama texe feeñe na ci man leer ma ci jamonoy bi ma nekkee ci fokkat yooyu dootu dëgmal mukk sama wàll ña nga xam ne ay naankati sàngara la dootu ma dëgmal lu dul ak texe ci moom yàlla mi nga xam ne moo ma jàppandalal samay mbir yàlla laabal na samay mbir ca borom téere ya yàlla aar ma ci lépp loo xam ni ak texee di la yàlla teral na ma ca jam ca foofe ca ña xam dañuy bokkaale yàlla yàlla wommatal ma loo xam dama ciy dab dabaatal li ma rawoon najadu bia yaa nasiiru yaa wali woo yàlla kafaytani woo naa yàlla ci yaa nasiiru ak yaa wali foofee la ma daldi di alagale saytaane bi mënta yàq sama mbir najatu nasiiru nasiiru yaa wali kafaytani iblisa inda jéewali siktu lasi hmm. saalilahu wal ilaa yasaawu maa siktu bilaa durrin wala dunit hmm. déedéet sëriñ Amidou du neel déedéet sëriñ Tuubaa du nit te du jinne te du malaayika doo kaa inaati laay wuute nga ak Musaa Ka du nit sëriñ am neel déedéet nee leen déedéet Ahmadul Mbàkke yu du nit te du jinne te doo malaayika kaay naate laay wuute ak Moussa ak Ahmadou wallaay ndeysaan sayxul xadim ahmadul mbakiyu muudu muudu muudu muudu muudu mbakki mum bari ay borom yére yu weex yi ñun ñi mooy sunu wasilatu ku muy sa wasila rek ku Sëriñ Tuubaa di sa wasila Xadiim muudu muudu muudu muudu muudu mu bari ay ñun ñi mooy sunu wasilatu ah, ah, ah, ah situ la si saali lahu wal ilaa yasa uma situ bila durin wala ku ko ñeme na wax kenn mësu ko loolu bi ko Cheikh Abdoul Ahad waxee dana ki mboole mbindeef bu yàlla bind kenn musu faa ak boromam déedéet situ la si saali lahu wal ilaa yasa uma situ bila durin wala bi mu ko waxee Abdou Khadre dana kenn du sunu wàññi kenn du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Yàlla mu am solo eh, nekk itam eh, leeral bu am solo ñu di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax sëñ Fallu eh, barakallaa ñi ngi gërëm baax soxna Aram Siñaan hmm. di sunu jigéen di sunu xarit mu ngi fii ci Liberté 5 àddee ji moo ko fi yónnee nee na numéro bi da ko rëcc waaye mu joxe ko ngir ñu jox la ko muy àddee sëñ Touba joo xam ne ni eh, nee na moo la ko ziyaare Adja Soda Thiam ñu ngi koy ziyaare baax moom it gis nañ léegi sëñ Mama ñu yónnee eh, message am ci eh, ni àddee ji mu tàbbal ci téléphone bi mu nekk lu am solo ñi ngi ziyaare bu baax a baax sëñ Moustapha Fall Murid Sadex bu Daaru Salaam nee na mi ngi nuyu sëñ Xaadim Kebe di nuyu sëñ Arabi bu baax a baax nee na mi ngi nuy sëñ Xabban ak sëñ Abdoulaye Diop Bichiri Eh, di ziare soxnaam madame Fall soxna Kumba Diop tey nuyoo bi xam naa ne nogay temps yi sëñ Pape de dafa bëgg kii waaye tubaarkàlla Sayda ak eh, soxna Kumba Diop ñooy sama xarit eh, terewul nañ ko ziar bokk ko ci wet gi rek soxna Nogay Diop ñu ngi koy nuyu bu baax barakallah kon bala maa dellu si waat ak sëñ arab yi damay bàyyi sëñ xaadim Kebe tey moom xam naa ne jàngal nga ma sama kii min dak sa si namm naa ko tisbaari jeewal namm naa ko julli na fulubaa namm naa ko waaye dégg naa muy jàng taxmis boo xam sëñ Elimaan sëñ sëñ Thierno Diop eh, dafa mel ni da ko da koo changé taxmis bi am na ay ay mbir yu bees tàq yu ci nekk yoo xam ne eh, doy na kemaan waaye daal lu mën a xew nañu bégalaat ci xaside yi balaa ñu ñëwaat ak imaam ndax léegi ñu mën a nekk nag ci dernier tour yi ndax jataay bi léegi mu yàgg eh, ñu ngi sant baax waa Rési sëñ Dame Barkalla ak sëñ Abdou Diouf président di ziare sëñ Mansour Guèye Jekko baylaat ak sëñ Pape Cheikh Bey Euh, tey Atoumane a nekk ci euh, caméra moo tax lu ngeen am rek jël leen tubaarkàlla Atoumane muy mu ne ci caméra moom kéemaan la doy na waar waaye tëral ñu ngi koy nuyu rek di ko ziare euh, sëñ Abdou Karim borom café geeg ataay ji ñu ngi koy nuyu baax kon sëñ xaar yi ñu koy bisimilah. مصطفى البيداو تكفيني سنة وسنة المصطفى البيضاء تكفينا سنة المصطفى البيضاء وسنة المصطفى البيضاء تكفينا مصطفى البيضاء البيضاء وسلة المصطفى البيضاء تكفيل مصطفى البيضاء تكفيل وسلة المصطفى البيضاء تكفيل مصطفى البيضاء البيضاء وسنة المصطفى البيضاء تكفيلا مصطفى البيضاء قالوا لي أركن لأب وبي سلاتين تعوس جوائز تخلي كل ما هي لا وبسم سلاتيني تخني قالوا لي يركن لأب وبي سلاتيني تاوس جوائز تغني كل ما حيل ستخني كل فقلت راسبي يا رب بي وكفيت بي على ستراد وقي العلم والدين ستخني كل وعلى ستراد ولا أقسى سوى ملكي لأنه جل يحب

كنا أو كيف يبسطني وبلو تاميلا جوار من درهم رودس سياتيني درهم رودس جوار من درهم رودس سياتيني درهم man Bamba leen a jiwaari man rawdu sayatim turum turum turum turum turum man Bamba leen jiwaari man درخ رب سياتيني درخ بلالة جواري من درخ رب سياتيني درخ Bamba nee na jiwaari man duruxu warabus sayaati durum روضة واخلن جواري من تروح ورادس ساكين تروم بامبا نينا جواري من تروح ورادس ساكين تروم بامبا نينا جواري من درهم رب سيأتي درهم غيبا إن كنت ساسم أو كنت ساوتر أو ترس العين قبل الراء وسين تخني وهو المعين الذي لا سيجزه وهو المكون ما ساء تكفين تخني نبي إنسان تغجيل أمر بحر كان سحسب أو ساعة تاج الله يفتى إلى الإين أبواب الإنساء تحجيل أمر كان سأجل أو سأتاجل يبتاه إلى الحين تخلون يا من يلوم فلا تجزر ودا أزلي إسلست من فقدات الدنيا بمخصوني أبواب وقلن إن كان هيبي يسوع دل في وتامهما فذاك عيب نافع سلي سيخسر طوبى لحبد مريد صالح لهم في خدمة أو بعبد أو أديات طوبى لحبد مريد صالح لهم في خدمة أو بعبد عبد أو أبيات بنسى لو ما لو ما يقول كل ما نفسي وأمدنا يقول أمتي هم خير من ريما نفسي ahmaduna ku bëgg Mustafa yaqulu kulluma nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati warham khayra man rayma nafsi ahmaduna yaqulu ummati warham يقول كل ما نفسي وأمدنا يقول أمتي هم خير من ريما نفسي يقول كل يقول كل ما نفسي وأمدنا يقول أمتي هم خير من ريما nafsi ndeysaan yarham yaqulu kulluma nafsi wa amaduna yaqulu ummati yarham khayra man rayma nafsi ummati نعمة والبار من نعم نعمة والبار في البار من نعمة والبار من نعم نعمة والبار سيري يا أمان في خلا ورمى والبلن ممتلئ دارا ونما ورما تلئ دار نبي ألا أتوب بنار آفات مغتنما أستغفر الله تعداد العوام وما تعداد ينال في عالم الدنيا من الديبية عالم الدنيا يا ليت دي كنت بلوى الجليل فتن فلم يكن كالكل إلا العتا مركبا ولم أمل للهوى فاليوم قلت أئن أستغفر الله تداد الخواتر من تهداد إنس وجن من ومن أرب ومن أجب أرب ما سلت آتي ما لم يرد مالكنا منذ السمان وما لم يرد قائدنا ما لم يات فقلت مستغفرا ولا أو ساترنا أستغفر الله جل الله أو خالقنا جل الله بار البراء يا ومؤيا لا سنين مميا وهو الرئيم الذي ما سأل سائخنا لما نفوس به وسلم آئخنا هلا نتوب إلى الغفار فاترنا أستغفر الله جل الله أو راسخنا جل الله الملئم المفضل الموصوف بالكرم موصوف التخلقنا بأن الله ناصرنا حدا كما هو الأهواء الياسرنا على أوال فكلكم فليقل خوفا لبايسنا أستغفر الله جل الله أو بايسنا جل الله ليوم مس دعم الأملاك والأمم أملاك توبوا إلا الله وتابوا لا تفتر تاوسخلوا بكما قومي مكاسفة إلا الله إلا الله فكلنا فليتب يرجو مساعدة فتر astaghfirullah atafan mudaafata aduhafan mimma sakar tu min al ajnas wal khisam nun ñépp nan tudd Yàlla mimma sakar tu min al ajnas wal khisam الحمد لله لما قد قضى وتر من بعد ما كنت فقر وساد درري حمدا يكافي مسيدا منه في الحسر ثم الصلاه على المختار من مدرع مختار خير البرية من باك ومبتسم من باك الله نور سماه allah nuuru samaa yàlla kenn la allah aw nuuru samaa allah aw nuuru samaa yàlla kenn la allah aw nuuru samaa rabbi allah aw nuuru samaa yàlla kenn la allah aw nuuru samaa yàlla màgg na allah aw nooru sama wal ardi munfaridan wala sayyid fiu wala lay itfa la aw nooru sama ndeysaan wala lay innal qasidata باء وخراء سوداء إن القصيدة سوداء وخراء سوداء في سري سفري riñaane Mbàkke mbaari jublu yoonu bare fo aw ñuy saare sahri safar Tuuba barkel nga tundu jeewal foo dem saxal fa xéewal ñang fay daje di màggal ak di fa siyaare Ahmadu Bamba ba nga ñëwee bis ba nga ñëwee ndar bis ba nga ñëwee bis ba nga ñëwee bis ba nga ñëwee ndar kabar fa kabar moom la waa di kabar ak di cosaare ndar géej ndar géej jëm ñëw di la teroo nga ak si ñuy siyaare bàyyi Seex nga ak si ñuy xaadim mi géma sëñ Ablaye ma innal xasida di na na ci yàgg am na soxna Ndiaye si bi nee na ma euh, sëñ xaadim Kébé dama ñoo bëgg a escanté soxna moom seen ci Amérique nee na mi ngi lay ziyaare bu baax a baax nee na mi ngi lay ñaanal ndax seral nga xoram euh, di mag ci soxna maam jaara seen bëgg fàllu nee na ma àddina saa ngi toj <laughs> soxna maam jaara seen bëgg fàllu maa ngi koy ziyaare foofu laay jaarale ziyaare bëgg fal yëpp sama yaay soxna maam Ami Ndiaye xam ngeen ne tey tubaarkàlla defar na ndog lu am solo xam nga njaay ni moom la yàlla xam doy na sëñ Mamor Mbaye nee na ma tey may superviser émission bi neel sëñ Xaadim ke ba may naa ko 20 sur 20 nee na ma tey moom tubaarkàlla may superviser yoonu géej gi d'accord naa ndeysaan barki démb bi def na jotaay bu am solo moog sëñ Moussa Kane xam naa sëñ Moussa Kane nelaw na ci démb bi daaw waaye mu ne ma émission bi yaa koy nee na ma ziyaaral ma sëñ Abdoulaye Diop Bichri neel sëñ Xaadim ke ba naa ko 20 sur 20 sëñ Mamor Mbaye maa ngi lay ziyaare baax a baax euh, di nuyu sunu yaay awa saw soxna Subaara ca Louga sa soppe sa xarit Euh, nee na mi ngi lay ziare bu baax a baax euh, di ak sëñ Ablaye Diop bu ma xàddamatul xidma sama mag sëñ Ablaye sëñ Ablaye mu daanu ci njàng ak a jafee gis tubarkalla waaye nee na ma sëñ Xaadim Kebe mi li muy jàng neex na sëñ Ablaye jërëjëf maa ngi lay ziare soxna maam Jaara Mbàkke moom Serigne Bassirou Mbacke Proxaan ñu ngi koy ziare bu baax ma nga ci hôpital Madlou Fawzeyni nee na mi ngi lay ziare bu baax a baax sëñ Xaadim Kebe ak euh, soñ sëñ Xaadim Silla ma nga ca Atlanta nee na mi ngi lay nuyu di la ziare sëñ ma Moustapha ñi nga xasaayit nee na naa la wax ne mi ngi lay ziare ak euh, sëñ Ibrahima Fall Lamp conférencier nee na mi ngi lay ziare sëriñ Mamor Mbacke Dendey mi yor group soppe yi maa ngi koy ziare bu baax ñoom soxna say saar ñëpp tubaarkàlla mi ngi joxe léegi yitteem sëñ Moustapha Saliou Saw conférencier bu mag la nee na mu ma sëñ Abdoulaye Diop Bichiri ak sëñ Kebe ak sëñ Arabi euh, tubaarkàlla soxna Kumba Saaxo nee na ma jotalal ma sama nuyoo sëñ Xaadim euh, sëñ Xaadim Kebe tubaarkàlla sunu soppe ba nekk ndar Euh, mii ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax euh, di ku baax moom tamit di koo xam ne tubaarkàlla euh, kenn la ci nun soxna Astou Gawane Jaxate ñu ngi koy nuyu ak soxna Astou Jaxate ak soxna Bintu Jaxate maa ngi leen di nuyu ak sëñ Moustapha ma nekk fële ca Tiwaawoon moom it ñu ngi koy ziare baax a baax sëñ Arabi maa ngi sant bu baax mbokki taalibe yi ndax numéro bi ma joxe woon léegi dafa plafonné ci jëf ji nga xam ne mbokki taalibe yaa ngi ko doon jëf waaye euh, doomam gis naa ko léegi sëñ Khalifa Niass doomi sëñ arabi la association bi di ay AIS foofu la bokk di borom xam-xam bu mag jàngi ñëw waaye waajuram boole ko ci kuréel boobu ngir mu liggéey lislaam mu ñëw léegi na ma numéro bi dafa sax dafa plafone faf waaye terewul am na ñoo xam ci seen xir ak seen pësseef dañ ko ne jëlal sunu numéro ndax suba ñu yónnee sunu àddiya am na ko may wax léegi ma nga ca Chine ne man naa jot numéro bi rek incha allah bu ma xëyee tàbbal ci waaye ba suba ci heure bii daal nay dàqe rek moom daal tubaarkàlla nay tàbbi ndax sëñ Tuubaa moom maanaam ku ci ne ci mbég ngay dund sa àddina ak sa àllaaxira rawatina nag koo xam ne parce que tey sëñ Abdoulaye Diop Bichri lu mu wax ci nag wi rek ñu ne der bi la soxla wax ci nag wi rek duñ ko may dara fi ne foo ko gis muy wax rek ñay sant ngay sant ñay xasa ngay xas ñay saaga ngay saaga waaye kii moom kenn du ko mënta génn ci lislaam ji kilifa diine la imaam la borom xam la ñëw di wax lillahi taala li mu gis sëñ ak li sëñ Tuubaa représenté sa jour dama koy wax damay wax ne sëñ Touba ay nit di ko topp ak ay daayira ak sosal ko lii ak yooyu taxul woon sëñ bi di fi wàcc kooku defee ñëw lii sëñ Xaadim wax léegi yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmadullah yaqulu ummati yarham xayra man rahima sëñ Touba moom fexe ba euh, philosophie mooy jaam yàlla yi buñ dugg sawara nañ raw nañ mucc nañ am tawfiq loolu moo nekkoon objectif am mm-hmm. moo tax bi mu ñëw def na ical rajo yi ilaa xaw mi taadas naa waaye waltak fi naa jërëjëf sëñ Ibrahima Faye eh, sëñ Mansour tey Ibrahima fay daal daanu eh, nee na ma tey maanaam baat bi mënuma ko téyaale daal téye naa ko téye mënuma ko téye ma ne leen merci waaye yow it merci eh, jërëjëf Atoumane musta daanu moom tubaarkàlla ñi ngi ñi ngi nuyu nag mboolem ñi ñu topp ñëpp ndax bëgg nañoo tudd ñëpp soxna Awa Sarr ma ngi ca Canada moom it ndeysaan mi ngi yónnee léegi yitteem yóbbanteem ci ay ziar di nuyu bu baax a baax soxna Ndey Mbàkke moom tamit Eh, di sëtu Bamba Jaara Borom Sam moom it ñu ngi koy ziare bu baax a baax soxna Alimatu Ka ñu ngi koy nuyu maître bay di mbay mi ngi yónnee waat léegi ay bataaxal moom it tubaarkàlla soxna Wëli ma ngi fële ca parcelle moom it mu ngi yónnee ay ay yitteem soxna Aji Diop maa ngi lay ziare bu baax a baax ca Floride ak yaayam soxna Faama ak soppe yi ne foofu ca Amérique yëpp ndax ñoom ñëpp dañuy wax ne ñu ngi eh, topp sëñ Moustapha Diop Taysir nee ne mi ngi lay nuyu sëñ Xaadim eh, nee na di ziare sëñ Abdoulaye Diop Bichri ak waa bi soxna Adama Mbacke eh, ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara ak soxna ñaaña ma nga fële ca Paris sunu mag soxna Jatu Diop ñu ngi koy nuyu baax sëñ arab yi xam naa léegi yegg fi ñuy yëkkatee jataay bi ndax eh, te biiñ la tée yàgg na waaye lépp di taw feex rek mm-hmm. kon damaa bëggoon bala ñoo yëkkati nga wax ma tey buñ la doon wax ne la ban ban bayit mooy ñëw ci sa bopp rek compliqué nga xam ne di nga dox ba yàgg mu ñëw ci sa bopp ndax junñu nga léegi ila yaqaadallaahu maalam yakun nga xam ne mën nga cee yenn fanaan ci mm-hmm, di ko décortiquer tey bu ma la doon wax ne tey la ngay jékki-jékki rek benn béy traversé la nga taxaw ne kenn Cheikhul Khadim waaw jërëjëf euh, sëñ Touba moom euh, nee naa ku ko ku ko bañ amul ku koy ni réerée moo am mm-hmm. moo tax euh, la ma waxoon sama waaje Cheikh Ahmad Bamba bala maa ñëw ci loolu mooy mm-hmm. li mu wax léegi bañ ko sonalee sonal bu ne su fekkoon ne waxoon na dara yow yàlla dimbale ma sonn naa kon ñu weer ko noonam yi jàng arab weer ko dëgg la wala déet su fekkoon ne wéet naa ak ñoom def euh, protocole rëbës dégg naa ko waaye bu maa yombeek nangam kenn dégg ko parce que amut bañ ko jaaralee fañ ko jaaralee yépp mu reste toujours lii même bay tàggu boromam boromam naan ko ijal rujuu'i allahu akbar ila qawmi saadatana mhm. wal takfina yowma jamci lxalqi niiraana lenn moo ci ne ijal ruju yow yàlla ijal ordre la ak impératif xóotu garaame bi bi sëñ Tuubaa di waxee lu jafe la ijaal mooy defal su fekkee ne nit ak nit su fekkee ne dafay jógee ci suuf jëm ci kaw tiif lay transformé wu comme ihdina doo wax jubal ma rabbana atina doo wax jox ma naa doo ko wax xoolal li mu koy jëfandikoo haute grammaire bi muy waxee la laa leen di wax de te kii wax mu ngi spécialisé ci balaaga mooy bayaan ak nu ñu koy waxee maani ñaar ñoo ñooy ulumul balaaga mu ne yow yàlla nga def suma suma su ma dellu saadata hum maanaam modeste moo tax mu ne saadata ma mu ne yow yàlla su ma coono biñ ma teg ndax ma mooy la ma bañ ma nàngam yàlla nga ko defal Sénégal muy seen seen bonheur ma ne incontestable ñibbi si sëñ Touba nekk sëñ Touba bonheur la pour le Sénégal ku ko nangoo ku ko nanguwul bu jaadu woon sax indépendance ñu ne ñibbi seem fii moom mooy indépendance man loolu laa gëm ijaal rujuu yi dégg ko bu baax mhm. ilaa qawmi ilaa qawmi la wax mhm. waxut ilaa murid yi waxut ilaa atbaa yi wala nangam kaw mi kon la ma waxoon sëñ Sidi Baxtaar rek doomam yëpp maa ngi leen nuyu ci sëñ Moustapha may taawu ba ca ko benn waaye dama xanaa Touba ñi kii ñëpp nga xam ma ne ko ñëpp ma xam ma xam leen mbubu moo gis ma sol ñoom ñoo ko defar ba mu rafet ñu yónnee ma ko te nag bu ma ko wax maa leen xaw ma laay ji ma waxoon waaw déedéet laay laay laa wax hmm. waaw waaw ilaa qawmi saadatan ma maanaam bonheuram ñaareel bi àllamanaa ra àllamani rahmaanu jii doon wax suma mbokk mu baax mii doon ko wax xam nga eh, sëñ Tuba daa amul morom fa wax parce que lépp ma baax man ay jàng yi tiijaan dañ may invité ak lu ne may wax am naa technique de communication mm-hmm. nekkatoo sëriñ bi dafa fiir mm-hmm. yàlla dimbalawu ko léegi ba may wax rek mu naan ma nii montor bi mel mel mel na sëñ bi Jóob naan nii montor bi lu quinze minutes ma am fi mat trois cent mille mu naan yéen ña seen ñi day seen xërëm yéeg seen nangam yéeg seen nangam yéeg yooyu léegi nag ma ne àllama ni rahmaanu fi safina dangeen ma déglu bu baax te xam naa ne bala maa àgg kaw rax wala bu subaa ñu naan ma li wax war a koo rax mais man waxuma lu ma warta man jàngalekat laa ki mérité woo dix laa koy jox la ki mérité woo trois trois laa koy jox Cheikhul Khadim su ma dégg-dégg mooy bi mu nekkee ci gaal gi ci coono bi lañ ko signeel benn décret ne ko yow yaay xaadimu rasulillah annoncé ko mu ne allamani xoolal mu utilisé baatu rahman waxul allamani laahu waaw est ce que yéen a ngi dégg. c'est-à-dire ni muy tànnee baat yi dafa yéemu. jëlul ismu zaat yi. ah ma ne jëlul ismu zaat yi. déedéet maanaam rahman yërmande yàlla bi mu koy yëgee mu ne ko allamani rahmaanu fii safina ca booba maa ngi ci biir gaal gi. Mhm. bi annani xadimu til madina nome nañ ma rasulullah nome nañ ma décret xaadimu rasul ma ne foo bindoon lettaru xaadimu rasul ku mën a doon fu mu dem ñu ne dañoo juum te ñëpp a ngi naan xaadimu rasul lañ sëñ am ni dégg la ma maa ngi lay déglu bu baax a baax a baax waaw parce que basam décret officiel ñu ne ko annoncé ko mooy allamani mu teg ci rahmaanu c'est-à-dire benn waaye benn entrepreneur nee na ma birig bi ci birig bi ci gën tabax da ngay jël birig entier birig birig birig birig birig nga ñëw ba ci ko ba ci xaju bi nga toj ko defeen beneen birig bu sëñ Tuubaa nag doo ci gis benn manqué kii li xel li ma yoo xam ne ko am na waay woo xam ne dafa am lu muy yi te maanaam yi jeex na nga àggali ko ci leneen moom fi muy commencé foofu lay àggee ku ñuy wax docteur euh, Jim Darame moo yor IFAN daf ne ma dangaa waroon a bind ci sa baay ma ne ko bu ma man daf may génnewu man mënumaa bind ci sama baay te du ma bind ci sëñ Touba mënumaa bind ci sama baay te du ma bind ci Cheikhul Hadji ndax li sama baay wax mais li mu wax ci sëñ Touba surtout ki ko wax surtout ki ko wax waaw ñaareel ñaar ñaareel bi mooy wajal qulubana ala tawaddudi gis nga ni muy tànnee bari waxu waxut wajal qulubana ko waxoon mu am mu mais nag wajaala baynakum mawadda nga la yàlla wax mu jël mu jël wa rahma son son relatif mm-hmm. mawadda ak rahma mm-hmm. yàlla ne wajaala baynakum mawadda wa rahma moom it mu ne ijaal ruj eh, wajal qulubana wajal moo tax tànnaas ak siis ak nit ñi def maag Ahmadu amul Touba amut sa sëtu sëñ Touba xam nga li ko def wajal qulubana ala tawaddudi ñëpp soppante ñëpp ko gis ñëpp a soppante ñëpp a bëggante danaa wax nag loo xam ne mooy maa ngi nuyu waa kër sëñ Abdul Ahad mhm. mooy lii problème bi amoon ñu defoon commission man dama ne jaru ko woon mësul am Touba était toujours solution man nekk naa conseiller président Abdou Diouf pendant vingt ans mu am problème ci jàngalekat yi quatre-vingt-huit Abdou Diouf ne ma li may tiit bëriwut waaye tiit naa quelle est la solution ma ne ko il faut aller à Touba gannaaw ko dee ñu yóbbu Touba ku sakkal na nangam nangam yaakaar nga dem nga Touba. Hmm. man day c'est la solution mu ubbil ma bunt bi. Hmm. ma dem gisu sëñ Abdoulaye njëkk loolu nag Nasirou Touré daana fu yóbbu xamanteem ñu xamante. Hmm. sëñ Niassène ma ne Mbàkke lu doon tànk yi sa doom jéem a yónni kana Abdou Diouf mën na lan affaire geraw bi mu doon dërër laa ci xamul dërër laa ci xamul. ndeysaan. <laughs> ma ne ko dafa am ku ñuy wax Iba Ndiaye Diadji. Mhm. maak moom ñoo nekkoon école normale supérieure te moo ko jiite. mu yëkkati téléphone am bu weex ba teg ko ne ma téléphonel ba suba. Mhm. ma composé. monsieur Ndiaye wooy ma ne ko ne quittez pas avec la xalif général de Mouride bu amoon kii ci lay dee lu ma def nangam nangam. salaamaaleykum man la Abdoulaye Mbacke bëgguma xam kuy sëb sëri kuy sëb sëri bëgguma xam foo bokk. it daf ko freiné ba lii ma kii daf fi ñëw di kilifa di gone. Ah, ah, waaye ba fi ñëpp ñëw ci man kilifa yónni ko yaakaar jim yaakaar ci man yaakaar joojee moom laa yaakaar ci yow waay ne kap ndeysaan ko xam suñu abdoulaye xam na xam nga xam dëgg la waaye yowaat ne ko jox ma arabi mm-hmm. mu ne ko bu ma la ko mayee kon dafay mel nii mm-hmm. dañ maa oo pale jox may xaalis leen la may defee mm-hmm. onze régions yi boobu onze la woon ñëpp ñoo fi dajee balaa nanga mu daal di commencé Saliou Touré danaa ñu fi ñëw buy fukk buy ñaar fexeel bañ jos ci man kap ndeysaan noonu la ko defee ba ñépp ñëw ndeysaan ma ñëw nag Mbàkke gan ni ñëw nañ mais teraanga ji leen defal ci xaraka nangam mbayeen yi ak sàmbeen yi dégg nga ñu dem a dem ba ci kanam mu jël enveloppe ba at mooma dix mille yi dañoo xonq mu jël enveloppe yi benn bu ne mu def ca cent mille boole ak sëñ Modou Mamoun Ñang yaakaar naa noonu moo doon sëñ Modou Mamoun Ñang sëñ Modou xaw mi ngi mi ngi fi waaw sëñ Modou Mamoun Ñang ñu dem jox leen enveloppe yi mu ne na ñëw bañ ñëwee ñu daal di commencé naan waa sëñ sëñ sëñ Abdoulaye waxul dara ñoom ñoo wax ne d'accord nañ ci teraanga ji ma téléphoné président Abdou Diouf ci ci fajar mu wax ne nañ jël rajo Sénégal def ko ci téléphone sëñ euh, sëñ Abdoulahat ñu naan compte tenu de nangam compte tenu de nangam compte tenu de nangam maanaam gerew bi dañ na fee à dakaar te booba ma nga Touba Abdou ne ma ku def lu rëy am lu rëy demal ci sëñ Abdou Lahad nga ne ko nañ dafa bëgg ñu décorer ko waaye man ñi mawuma koo décorer ndax laaj naa gouverneur Cissé bi ci eh, Diourbel mu ne sëñ Abdou Lahad n'a jamais été décoré mm-hmm. bu buggee gouvernement bi yépp ñëw tuubaa wala bu ko neexee mu ñëw Dakar ñu barkeelu ci. Mhm. man nag ma foog ne maa rey pël bi. Mhm. ñëw sëñ na Mbakke lan la mhm. sa doom jéem ngeen ni kan la Abdou Diouf mu ne lan mu ne dafa laa bëgg a décorer mu ne ma <laughs> ne ko mooy médaille mu ne médaille bi ma teree nelaw xamu ko mooy dee kottu dem aljanna. ma ne ko addurru wa nafu min arrahmani laysa minal bidaani wa suudaani mbàkkee naxewoo yoon wi naxewut mu ne wekket montre bi bi mu tagg ni sëñ na seen am waa ji ne ki ma ànd ne mais noppi sëñ bi daawul mu daawul nag ñun dañuy dee rek ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw loolu moo tax li ma doon wax booba ci jamono 88 bi mu ñëwee itam ñu xaw koo kii mais sëñ Mountakha mooy solution bi Touba et la solution loolu suma wax la ma gëm ko compte tenu suma expérience liggéey ak état pendant vingt ans ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon loolu laa ci bëgg a bëgg nañ koy waxati mais daal ndeysaan ñaareel ba mooy mm-hmm. sëñ muntaka mm-hmm. dafa dafa dafa sowee lislaamu Sénégal mm-hmm. parce que yaakaaroon nañ ne daal ab sëriñ daal day yalwaan rek dëgg waaw moo tax ngay dégg ñenn ñi naan joxu leen ma ceeb ba ba may gàmm joxu leen ma ko joxu leen ma alkaati ba <laughs> ay yow yaa wala naa nga mais moom mu defal ñëpp remplacer ñëpp sans tambour ni trompet ndeysaan kon ijaal rujuuxi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana xam nga boo xam nga loolu bokku ji de waaw kuy kuy kuy ommat doo kii mu ne waltëg fii na waltëg fihim mais lu tax mu ne ijaru ila qawmi saadatana lu tax mu ne waltëg fii naa parce que bu ñaanee yàlla boo boole ko ci bu ànd ca yàlla def koy ruus wa man laahu muazibuhum wa anta fihim dëgg la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf Ñas eh, day mel li wax rek xu anfusakum wa ahlikum naar waaw waaw moom foofu rek la moom fa la taxawe woon ndax eh, waaye jërëjëf yàlla la yàlla may wér yal yàlla guddal sa fan yal na yàlla may la nga eggale amiin ndem si yàlla Cheikh Ahmad Bachir Kunta waaw daf ma mas ñuy waxtaan ci téléphone mu am yu bari yu may nettali ci yoon wi mhm. mu ne ma góorgóorlul ci liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. ma ne ko ah, mu ne ma fii ma toll nii ma ne ko ah, mu ne ma xanaa li ma jàll waaye léegi ci sama kanam mbaaxook sëriñ bi lay yëkkati te du woon ab jaahil yàlla na yàlla dolli ay leeram waaye yow mhm. ak sëriñ Ahmad Khalifa référence ngeen parce que euh, lépp lu dajjim ngir lu ne am ngir rek nga fay teg. te it yàlla bokk na ci li may yërlu muy xol bu sell. te li sëñ Tuubaa waxoon ne sama zaahir ak sama baatin yàlla da koo sellal amul faute. déedéet zéro la. tey li may wax ne bu yowmal xiyaamee ku ne mën ngaa taxaw waaye moom day yëkkati loo xam ne tooñu ma kenn. Mm-hmm. kenn mësul dégg ñu ne sama dëkku maam bi sëñ Tuubaa ko ñëw raatale. Mm-hmm. ñëw nangu dëkk ba dëkk fa. Mm-hmm. déedéet da lay daan ay kilomètres sànc ko. te lu mu la jox la ko. moo tax euh, yàlla na yàlla fayal Cheikhul Khadim bu ñu ko amuloon xamuñu fu ñu jëm waaye ñas jërëjëf noo ngi bég bu baax tey nag li gën a neex ci sa ñëw nga ànd ak sa njaboot ñëw loolu lu neex la hmm. euh, maa ngi jot léegi sañ Xalifa muy wax ne xam naa wéef bi moom mi ngi dox kon numéro am ah. mooy 321 18 99 loolu mooy numéro sëñ Arabi Niass hmm. sëñ Xaban euh, dafa am mbokk yi sëñ Jibril ndax muy message di ne dafa mbokk yu bari yoo xam ne dañu soxla sa numéro euh, léegi la ma ko sëñ Jibril di wax xam naa ma bàyyi la nga joxe numéro bi su ko defee balaa ngay tàggatoo wax ay kàdduy cant yoo xam ne di nga ko jox mbokki téléspectateurs yi ndax deux heures la ñu waroon def ñu ngi ci trois heures de temps waaye loolu plateau bi moo ne toll hmm. ndax euh, wax dëgg yàlla ñi fi dajale rek moo toll noonu te it bégal mbokki téléspectateurs yi moo waral direction programme bi ak production ak kilifa télé bi indi plateau bi euh, ma bàyyi la nga sant waaye joxe waale numéro bi nga xam ni ci lañ la mën a jotee ndax mbokk yaa koy laajte. baax a baax tey jii ci bisu nga xam ni. ci lañ bokk tey jii mu mel ni sama jëmm ji mi ngi soog a ñëw Touba TV tey jii. Mm-hmm. Eh, ma ciy sant yàlla yonent beeg sëñ Tuubaa baax a baax waaye nag loo gis ne am na tàgge boo gis am na jàppal diw mhm. yow xam nga li ma booy ci plateau bi mooy sëñ Mamoun Mbacke mu suñu Abibu wallaay ndeysaan sama xarit boobu nga xam ni yàlla maag suñu xaadim ñooy fanaan këram bisu màggal ak yàgg sa jëmm ji yow suñu Amidun wallaay ndeysaan eh, mu sonn ci lool ni ma wol Amidun wallaay ndeysaan ba ma woola yow it ndeysaan ma woola rek nga ma àll ba te mën a jàng eh, ñu ngi sant baax nag waaye di nuyu ci nuyoo bi lañu waroon njëkki sax ndax gannaaw xasida yi moom nuyoo la mhm. waaye nag mënta ñàkk tamit ñu bàyyi nuyu fi nga xam ne fi lañ jógee muy Thiès mhm. ka fa nekk sëñ Tuubaa di sëñ Saliou Touré mhm. yal na fi yàgg te wér amiin sëñ Xaam Lo Guédel tey moo ne ma nuyul ma Amidou Diop ndeysaan sama xarita ndeysaan li li wax ma wax sama xarit sama xarita dañuy wéet ay waxtu yu yàgg ndeysaan nuy waxtaan borom daam sëñ Xaadim maa ngi lay ziare bu baax a baax a defal na ma teraanga yu bari. gis naa gis naa ko ndeysaan gis naa gis naa naa nataal bi. ci moom laa ndogoo démb. wallaay ndeysaan macha allah. nag ma ko ziyaaral baax borom daal wallaay ndeysaan ma ne ko loolu maa ngi dem ci émission ma su demee bu baax. sama xarit la sama xarit la wallaay sëñ loo koy def wallaay wallaay. wallaay eh, di nuyu tamit bu baax sëñ Lamine Baara moom sëñ Mbàkke Madina. Mm-hmm. sunu xarit boobu nga xam ne suma lépp la. Mm-hmm. di nuyu tamit sama waajur bàyyi sëriñ Gueye mu saa Sadex sama yaay soxna Koña. ah di nuyu mbooleem waa Thiès gépp nag sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Mour Fati Xari mhm. mi ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu jotaay bi di nuyu baax sëñ Abdou Lahad Mbacke. Mhm. nga xam ne moom sama lépp la. di ziar waa Thiès mu mel ni daal. kàddu gi moom man sama maam habitude ba nga xam ni habitude bi may def mooy jàng xasaayit la laa def muy sama nuyoog. ndeysaan sama ak cant waaye ku ma ku ku ku moo tudd tamit sama xol bi tudd na la. ndax Thiès gépp ñu ngi bàyyi xel. Mhm. bi ñu toogee fii di xaar rek ku ne mi ngi war naan xanaa émission bi amatul amatul man leen ah kay am na. ndeysaan sant waa Thiès gépp mhm. di sant mbooleem taalibe suñ tubaay yi fu waaye mën a ci àdduna mhm. ak mbooleem jullit yi suñu baay bii baay arab yi dañ ko daan gis rek waaye ñu ngi soo gis jëmam tey ndeysaan waaye li nga wax rek moo ci ne ñoo ngi ñaan nga gudd fan te wér amiin amiin amiin suñu magi yi suñu xaadim kebe mi nga xam ni fu ma fekk ni ma man sam jàng dama koy yëg yëkkati taraangaan moo ko defal ak mboolem jànkat yi maa ngi ñaan sëriñ bi kàttanal leen te doo leen dafa leen tawféex sëñ Abdoulaye Diop bis bi sunu mbokkum taalibe la waaye sama goro la moom sama goro la ndax euh, doomam laay denc kon maa ngi koy ñaanal moom it suñu Fallou mii ñu bokk lépp moom it eh, muy sama lépp ñu ko ñaanal tawféexu sëriñ bi mm-hmm. waaye kii ma ànd ak muy Mara Gueye mun ma koo ñàkk sant ndax dama ko wenn Touba TV maa la yóbbu sama oto ndeysaan yàlla na ko yàlla fay def ci gasoil indi ma ndeysaan maa ngi koy ñaar ak sama soage mi ñu àndal ak suñu abdoulaye male yàlla na ko yàlla fay comme sama xol seet na guy moo xam ne mm-hmm. daal suñu amitun mm-hmm. moom daal sant gi mënta weesu mooy sant maa ngi sant ñëpp numéro bi nag moom 77 la 77 514 514 78 78 90 90 77 514 78. 78. 90. 90. waaw mooy numéro Serigne Xabane Guèye Xasida. waaw xam naa nag eh, sëñ Jibril Ndaw ak mooy sonal ci numéro sëñ Xabane. waaw numéro baa nga noonu 77 514 78 90. 90 ñoo ngi am mbégte bu baax. Eh, ci sa teewaay ci plateau bi li nga wax lépp ci yow la nekk. li ma gën a neex ci moom mooy eh, ndeysaan jataay koo mën a dalal rek dana la woo ni maa ngi ziar bi maa ngi topp jataay mu murit la ak dal gi. ak euh, teewe naa ba yi miraaran ngay jàng ma am gis yu bari nga jiital ko ci njàng mi te loolu di lu am solo yàlla na la suñu borom gën a kàttanal gën laa dëgëral njàng mi it xam naa ne dañ koy fàttalikoo Baye Omar waaye loo ci mën ci gën ko améliorer génn ci kase bi loolu loolu maa la ci wax benn mbir mhm. man daay sëñ saayu laa jàngee njàpp ndal man njàpp ndal laa nekkoon Ah. waaw jàpp da laa nekkoon. kon xam naa yéen a jug ñu ñu. <coughs> sëñ Mamar Kébé ma yoroon ak seex at man mii moom moom fa la ñoo ma yor. waaw tubaarkàlla. sëñ Laaji Mbàkke moo jàng ak Cheikh Laaji. dinaa dem ci xuru Ngéejaan wa de xuru woowee. ñu daan doon ma yeeg sëñ Mutulaa la ma. ndeysaan léegi ma jugee daara ñëw Thiès. Mhm. ñibbisi. Mhm. dama doon jàng dama doon def liggéeyu maçon. bis ma tëdd guddi sëñ Saayu ni ma xàbbaan jugal jàng xasaayit te roy sëñ Omar Diouf. ca. sëñ Saayu ma ma jugal jàng xasaayit te roy sëñ Omar Diouf. Mhm. dëgg la bi ma jugee Cees gépp ni ma air bi nga jël du dem daa diis bàyyil waaye xam naa la ma dee ma jël safar bam sin jàng ko asaabu jënat jàng ko ba tey ñëpp da naan doomam man Baye Omar beñoo laa ko sa gis kat ndeysaan ndax dama gis mooy damaa jugee njàpp ndal damaa feebaru jugee njàpp ndal ñëw ndaamaatu faju ba ñëw ñëw sëñ Saliou ngir war dellu daara ma toog sëñ bi nii ci kees gi ma posé ni Baye ni der sëñ bi ni tekk mhm. ma gis Baye Omar boobu laa ko mujj njëkk gis boobu laa ko mujjee gis ba ni mu faatoo ndeysaan moo tax si ndigal loolu sëñ Saliou jox ma ci Baye Amar mm-hmm. moo tax fu ma ko jàngee ñëpp jàpp yu doomam la wallaay ndeysaan air bi kenn jox ma ko sëñ Saliou ma jox ndigal li wallaay ndeysaan kon maa ngi ko sant bu baax day wax man am doom sëñ Saliou maa ngi sant sëñ Saliou bu baax a baax te nii ma ko naa ci ay way yoo xam ne sax waaye naa bàyyi benn yoon wallaay ñu ñu ñu ñu àggale ko wallaay ndeysaan jërëjëf sant ñëpp nag waa Thiès gépp maa ngi leen sant jërëjëf auma seen fay Thiès gépp maa ngi leen sant jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu baax sëñ Cheikh Ibra Diop Kayar nee ngi leen siyaare ak sëriñ Galas Mbàkke moom sëñ Fàllu moom sëñ moom sëñ Murtala moom sëñ Fàllu sëñ Xaadim nee na mi ngi lay ziyaare bu baax waaw kon euh, sëñ Ablaay balaa maa ñëw ci sëñ Xaadim ñaari question yi ma amoon waaye guddi gi euh, Masamba Masamba Diouf Jawfal Fara mi ngi seetaan euh, liggéey bi moom it ñu ngi koy ziyaare moom sëñ Abdou sama tey amoon naa ñaari question a ah, ataytanil jamia duuna salabi wali taqudu su'la waxta bi ak ak akramani fii mawdihi wa baladi mukarramun bil amni safa xaladi ñaari question yi laa bëggoon nga dóoral ma ko tey waaye euh, tubaarkàlla euh, xam naa jekk bàyyi laa dana daanu fii euh, ma bàyyi la rek sëñ Cheikh Ibra Diop nee na ma kañ laay ñëw yow waajal rek jekk kal yow na sa xol sedd suba incha allah am nañ beneen jotaay nag ak sëñ Xaadim kay boo xam ne kéemaan lay doon sëñ Xaadim moom mu ngi ndakaaru dañ ko fi téye ba ci kanam sëñ ma bàyyi la rek. nga xam naa ne mbokk yi lay ci bari na lool tubaarkàlla waaw xanaa sant yàlla na leen sëriñ bi fay mm-hmm. ngi mi neex na mm-hmm. waxtaan wi neex na mm-hmm. yàlla na yàlla fay ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte lool nag ci jataay bi di sant nag mbokk ya ca Thiès ni ko sëñ démb fa la ñu nekkoon waroon fa def waxtaan ci prestige di nuyu kilifa ga di sëriñ Pape Doumbia démb waxtaan fa def daa kontaan may ma fa kër ndeysaan baax a baax a baax waa Thiès ñu ngi koy sant di sant mbokk yaa koy jàppale yépp ca bërëb booba jaare ko ci sunu rakk sëñ Modou Diop Ndiaye. Mhm. mu bàyyi Ndiass Ndiaye. Mhm. di nuyu bu baax nag sama mag jafa nekk di Adja Mbène Ndoye. Mhm. waaw di ko nuyu ak soxna Khoudia Ndoye bu baax a baax a baax. moom sa goro la. ñu koy nuyu bu baax nuyu itam sëñ Mbaye Ndoye. beral nuyoo Serigne Khadim Lo Gaydel. démb teraanga ju ne def na ko këram lañu ñu ndogoo ca. baax daat teraanga ju ne mu def ko ndeysaan mm-hmm. nu waxtaan bu bari ci xam-xam mm-hmm. toog mu def teraanga yu bari mm-hmm. waaw baax lool bëgg sëñ Tuubaa lool tabe lool di dund xasaa yi di dund sëñ bi yal yàlla yàggal taxawaayam nu ngi koy nuyu di ko ziyaara nuyu mbokk yi ca Cees yépp nag bàyyiwuma kenn rek ñoom soxna na koy xool nag ñoom ñu samay soppe lañu waaw démb sax dafa maa mere ni ma dama laa waajalal ndogu nga teggi ma dem ndogu ji ma ne ko déet kilifa gi moo ma woo di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di nuyu tam mbokk yi ni topp nag àllarba bu jot bitim réew kenn du nelaw ca Amérique soxna Sooda Jaw ñu ngi koy nuyu nekk ca Philadelphie mhm. ay sama soppe boo xam ne dem naa ba Philadelphie def fa conférence te booba jamono taxul nu xamante ginnaaw bi nag nu xamante muy ku baax koo xam ni mhm. li may réccu rek mooy yeex gee xam nu ngi koy ziar moo ko waa Philadelphie yépp di nuyu mbokk ya ca Atlanta di nuyu ña ca Brooklyn ñu ngi leen di nuyu ku mel ni sëñ Ousmane Gueye di nuyu mbokk yi ci New York nag ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp dañuy topp émission bi euh, léegi la ma aas Mbacke Diagne di yóbbante message mu nga ca Long Island waaw nekk foo état benn commune bu nekk ci biir New York mooy day topp jataay bi di ko rate sëñ Saliou Sène ca Italie moom it ku bëgg jataay bi la nee na ma yéene sama wéttal guddi ak bëccëg ñu ngi koy sant Pathé Fall Diop noonu ca Dallas waaw ñu ngi koy sant mooy bu baax a baax sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan fépp rek ndax tele bi fépp la àgg léegi kon nag sant mbokk yëpp di leen gërëm mm-hmm. beral nuyoo bu baax sëriñ cubb gay sëriñ cubb gay ca mbuur mm-hmm. waaw ku bëgg sëñ Tuubaa ngoog sëñ Xaamidu waaw maa ngi koy wax léegi maam Cerno Jóob mm-hmm. euh, defe naa daaw ci safar gi fukki xar ak ñett defe naa la tëral ak gëléem oo jànkat yëpp ku ne mu teral la sëñ Xaadim Kebe mi defe naa ñëw na ci waaw sëñ cubb gay noonu la mel kon yàlla na ko yàlla sàmm te yokk ko ñu ngi sant tam mbokk yi nga xam ni ñu ngi jàppale ci liggéey bi ñu defal sëñ Touba ku mel ni sëñ Moustapha Ndoye du ngi koy sant ku mel ni sëñ Abdoulaye Jabu Séniko sama xarit maa ngi koy sant ku mel ni sëriñ Buub bu CCBM maa ngi koy sant bëgg ma lool maa ngi sant ñëpp rek bàyyiwuma kenn euh, di bàyyi kàddu gi foofu ndeysaan suñu mbokk yi mën a àggale beral leen nag nuyoo ndax it nag lii yombul mhm. waaw sëñ Xaadim lii mu def mhm. dérangé wu ànd ak kuréel yi koy aw yëpp dikk. Mm-hmm. ngir bëgg sëñ bi wallaay wallaay ndeysaan te toll na foo xam ne ci jàng. Ah, bu ko neexoon mu jafe lool ci nun wallaay waaye kon ko yàlla fay. wallaay nu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Cheikh Sidil Muxtaar ba ko bëggoon def ko jàngkatam. Mm. yàlla guddal fanam te dolli ko teraanga. Mm. naka noonu di ñaanal sëñ xàbbaan wax dëgg yàlla bu jàngee sa xel mépp ci Baye Omar Diouf lay def Baye Omar Diouf bokk naa ci ñi mujj mm-hmm. at mi muy wàcc liggéey danoo daje kër sëñ Abdul Karim sëñ Fàllu borom makaari mu axlaax ca wetu golf pharmacie golf mm-hmm. fekk ma am cant gu ma doon waajal goo xam ni ay kilifaa ma géntal ni sëñ Fallou nee na nga def cant mm-hmm. ci laa ma sa woote cant sax ma ni comme sëñ Fallou na jox na ma ci ndigal dinaa ko def mu yëgle ko nag ñu daje fa mm-hmm. ñu ngi fa daje defe naa bisu dimanche ziar sëñ Abdul Karim ma ne ko bàyyi Omar faaw nga ñëw sama bis bi de mu ne ma ñaara mën a tax du ma ñëw sa bis ñaar ndax yow dama laa naw benn bi mooy sëñ Saliou bu ma woowee doo ma gis <laughs> man naa jikki mu woolu ma ma waaw bi ci des mooy yàlla jël sama ndeysaan waaw ndeket noonu la yàlla àtte defe naa ci alxamis ñu tàgge ma ko waaw ndeysaan kon noonu la noonu la baax la woon ki ngay wallaay ndeysaan yàlla na ko yàlla fay ci xasaay yi amiin Diop di sant sëñ Fallou Tine mii sëñ Fallou waaw waaw ku am avenir ci kéemaan la te baax lool ndeysaan boole ci nag baax ak yaru mhm. ak bëgg ko di ko dund day dund xasida mhm. waaw moo tax loolu ñu koy dàkkantale mhm. ah, yayoo na ko nag jàngkatu borom jumaa ci ñu koy ñaanal sunu borom day may ci euh, la nga xam ne wallaay léeg-léeg mu woonu nemmeeku nu wallaay ndeysaan koy sant di ko ñaanal ñaanal kuréel yi ñëw yëpp waaye benal nuyoo sunu kilifa gi di sunu wéeju ndeysaan waaw li nga def lu rëy la mm-hmm. ndax nag sëriñ bi dafa toll foo xam ni mm-hmm. ku ñëw te jël engagement doo ci wax mm-hmm. ndax moom jagle la yoon xaas la ko yàlla may xaas goo ko yàlla may nag kuy kuy kuy wër wëreeru doo ko ñemee wax dëgg la te yow nag xam nañ li ngay représenté ci na Niassène dëgg la xam nañu bu baax ki nga doon mm-hmm. Mm-hmm. xam sa wéejur ki mu doon xam li ngay représenté ci tarixa seex mm-hmm. te wax ji waxoo ko tey rek yem ci dëgg la fépp nga koy wax fekk naa la ba Touba Murit uh-huh. daje dañu fa maag yow Touba Murit ca ginnaaw Sokone ak Passy fekk naa la fa waaye wax ji yàgg nga di ko wax. dëgg la kon nu ngi lay ñaanal di la sant. dëgg la sëñ Abdoulaye daa waxoon ni ku liggéeyal sëñ Tuubaa murit yee lay fay. Mhm. kon na xam ne murit yëpp ñi lay yéenee gis pour teral la. Mhm. bari nañ ci àdduna te teguñ la ba. dëgg la sëñ Tuubaa moom ku ko jàpp. da mhm. nga tedd fii tedd fa nu jëm. dëgg la waaw ku ko soppi da ngay raw da maa wax léegi ci biir ni ma. sëñ Tuubaa rek laa sopp. lu ma la tontu dama ni la. sëñ Modou Diaw Paxa dani. mahabbatul abdil qadimi wirdi. wahiya ladal arsi xayru wirdi mahabbatul abdil qadimi tuuti barakatan min barakatil muti nee na bëgg sëñ Tuubaa mooy sama wird man nee bëgg sëñ Tuubaa day maye barke saa bu yàlla wàcce barke yi day xool ñi bëgg sëñ Tuubaa mu séddale kon barke rek ngay am dëgg la ndam rek ngay am da ngay am tawféex ndax sëñ Tuubaa bi nga bëgg dëgg la te boo dajeeg moom mu gën mu gën a neexat mhm. sëñ Tuubaa mel noonu léppam aljana dëgg la ñu ngi lay sant di la gën jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri yow it ku ñàkki ñaan nga ndax sëñ Abdoulaye képp koo mën a dalal ci jànkat yi dama ko naan rek diw laay dalal suba. Ah, munuma ko ku mën a jàng la. Ah, na ñëw ñu jàng. Euh, xam naa ne bu doon xeetu Mbàkke Touré gi sax nga am ne fere ñu ijji sax danaan ku mën a jàng la. Euh, ndax Mbàkke ci gone yi la bokk. Euh, tubaarkàlla xam naa moo njëkk a jàng commencé jàng Sëñ Fàllu tuuti waaye léegi Sëñ Fàllu du sa morom duble na la bu yàgg tubaarkàlla. ñu ngi nuyu baax sëñ Abdou sëñ Modou Kara Thiam mi ngi seetaan tele bi moom it nee na mi ngi ziare sëñ Xaadim Kebe mook sëñ Góora Jum Xasida moom it nee na mi ngi lay ziyaare ak sëñ njàpp mbay xasida nee na mi ngi lay ziyaare baax sëñ njàpp sama xarit maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ak euh, euh, tubaarkàlla moom daf na rek aw ko sëñ Abdoulaye Diouf laa maa ngi bég waaye yow it ñu ngi lay ziyaare euh, sëñ Xaadim ma bàyyi la yow nga nga nga nga nga nuyu mbokk yi bu noppee sëñ Fallou daal nuyoo ñu daal di mën a yëkkati jataay bi Euh, xam naa ne maa ngi bég bu baax tey nuyu sama sëriñ ba tubaarkàlla maa ngi koy ziare moom mi ngi micro sax waaye baax na benn la euh, ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi ni ko sëñ Ablaye waxee ci sa teewaay ndax yow télé bi yaakaar naa ba muy doon ba muy door ba léegi waxtu wu ñu woowee sëñ Xaadim Kebe rek def nañ fi conférence boo xam ne Touba jóge duy ñaari oto ñëw ànd ak ñun jataay bi ba mu jeex toll nañ foo xam ne mënatuñu seede ci moom ndax suñu digganteeg moom waaye terewul lu baax li muy def ak njàng mi fi mu ko teg ci sell ci waggar ko ci topp ko ba mu nga xam ne ku ko déglu di nga ko mën a jëfandikoo loolu yëpp tawféexi sëriñ bi la ñu ngi la ci encouragé di la ci ñaanal baax yàlla taxawu la ci bàyyi la rek nga nuyoo ak euh, bokki téléspectateurs yi ñu jox sëñ Fallou moom itam mu daal di nuyoo su ko defee ñu daal di euh, tëj jataay bi. jërëjëf jëf xanaa di dolli di sant rek. Mhm. baax di dolli di sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax. di dolli di fàttaliku Cheikh Sidil Mokhtar yàlla dolli ci moom leer taas ci barkeem. di nuyu sëñ Moustapha mi ab xalifaam ba ci sëñ Xaadim mi nga xam ne sànq rek doon na yónnee message ay kàddu di ko jëme ci jotaay bi rawatina ci sunu waajur wi nga xam ne mooy sëriñ Arabi Ñas hmm. sëñ Xaadim ñu ngi koy nuyu ak mboolem njabootu Cheikh Sidi Mokhtar gi yëpp di doole di sant rek eh, bu baax a baax ci sunu waajur wi waxtaan wi am na solo lool ñun ñëpp dolli ko waat nañ ci sëñ Touba sëñ Ablaye Diop bisiri moom it li mu wax lépp ni ko sëñ am ku baax la moom ku mu gis rek da ngay jàpp ne kooku mooy léppam yàlla yàlla sàmm ko te àggale ab liggéeyam ba ji sëñ Fallou Tine moom itam ñu ngi koy dool di sant bu baax a baax a baax ak sañ Xabaan ndax liggéey bi am na solo lool sëñ am nag moom mooy moom sunu lépp la dunu dunu wax ci moom xanaa di ko ñaanal rek fu mu bëgg àgg rek yàlla àggale ko fa di nuyu sëñ Maam Mor moom sëñ moom sëñ Abibu mi ngi topp lépp fan yi bari na ñu ñu bari ngi may kaas naan ma déggunu sëñ Cheikh yeeg sëñ mënu bi waaye am wax na dëgg maa ngi fi ba koor gi jeex ndeysaan rek insha bi yeneen jotaay bu subaa rek sëñ Maam mhm. dinaa ko dinaa ko fay bu baax maa ngi jot ay message waaw njaay si bi tam sànni na ay xeer yu bëree bëri waaw waaye ñoom ñëpp dinañu leen fay insha Allah bi <laughs> maa ngi ñu bare ngi naan ma dégguma borom Tuubaa ñi naan dégguma tisbaar yi jeebar ñu naan seex yi <clears throat> waaye suba waaye dara weesu insha rabbi taala ko fay de ndax xam nga seex yi woyaat nañ ko woyu bu bees bu am solo ah. xam ne bu subaa rek jombul bu neexee yàlla te léegi mu génn ñëpp la ñëpp a ngi ci insha allah seex yi sant ndiir ak ña sant karek ngerek ñëpp a ngi ci tey ndeysaan kon nag ñi ngi ñaan euh, sëñ Tuubaa mi nga xam ne. Mhm. moo nu loolu. Mhm. yàlla na ko yàlla doole fayal. Mhm. di sant nag ñi ma àndal ñëpp. ndeysaan sëñ ñoom sëñ Ilimaan sëñ Maxareeg sëñ Pape Diop ñu yóbbaale ñi ñu ci des ñëpp. sëñ Xaadim Fall la nga ne. ak mboolem mbokk yëpp di sant sëñ ma Dioune xam nga yàgg nañu lool. sëñ Mama ko baax ndeysaan ak mboolem ñi fi teew ñëpp. Euh, di saare baax ñu ko sëñ Ablaye wax sëñ Xaadim Lo Gaydel mhm. moom li mu doon ci ñëpp lu doon ci noonu rek mhm. xam nga ne jóge na ba Thiès ñëw ba fii ci Masaalikul Jinaan ak yu bari mhm. ak mboolem yoonu Mouride ku lim juum di nuyu soxna Daba moom itam bu baax moom sëñ Abdou Lahad soxna Daba moom sëñ Abdou lépp waaw di ko sëriñ am sëtu maam Cerno Ibrahima di ko ñaanal fan gudd ak wér bàyyi ko fi di nuyu soxna maam Faati Mbàkke mhm. sab sëriñ sa lépp ah, ak soxna Astu rakkam ba ci soxna maam Busa ak mboolem ñëpp sëñ Seexuna wallaay soxna Astu sama xarit ba dañ siyaaral baax a baax ndeysaan ak sëñ Seexuna ak mboolem mbokki daaru yëpp. Mhm. di nuyu sunu waajur sunu sunu ñaari waajur yëpp. bu góor ak bu jigéen. Mhm. di nuyu euh, waa kër ga yëpp sunu njaboot yi ca Touba. Mhm. di nuyu nag soppe yi nekk fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. xidmatul xadim yëpp yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara. ma ne daa bëri ñu may laaj sa ma bañ ñu sonal ñu sonal leen. waaw numéro numéro bi li muy daj comme léegi joxe nga bu sëñ Xabbaan ak sëñ Fallou. da nga sonn man sama bés jéggal naa la ko rek jéggal naa la sama numéro. damay joxe bu sëñ Ilimaan male ku soxla sëñ Xaadim ke ba jaar ci moom laay joxe rek bu gexel bu sëñ Ilimaan. bu sëñ Ilimaan danañ la sonal. ndax man yaakaar naa trop trop mujj na ñu bari di tàng ci man sax ngir mën a jël appel yëpp. weer diwee tax kon boo ko ci dollee nag. weer diwee course day indi ay complications yu bare bëri. waaye nag di sant nag bu baax nag sëñ Mouhamadou Faye. ndeysaan mi nga xam ne. sunu waajur la. sunu lépp la. ndeysaan sëñ am lépp lu nu wax ci borom Tuubaa ba ñëpp di ko bëggee rek. dëgg la moo ma koy baaxee di ma ci dimbali. dëgg dëgg la dëgg la di koo xam ne kenn la ci noonu. Mhm. fi mu nu féete mënuñu koo wax. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, noo ngi ñaan sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg lool. amiin amiin yàlla defal ko ak ak yàlla ko yàlla defal ko fanu gudd ndax moom bu fan wi guddee rek. ndeysaan li mu bëgg lépp sëñ Tuubaa dina ko def. kon nag Mbacke euh, Faye jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. wallaay wallaay xam nañ li mu doon ci nun wallaay wallaay waaw ëpp na sax di nu di romb sax di nu dimbali ci ab yi. waaye sunu waajur la laa bëgg moom sunu péete la. Mm-hmm, euh, maa ngi jégalu ndax waroon na maa gën a xuus sax ci ci abiyaat bu baax. wallaay wallaay waaye jotaay bi moo demee noonu waaye bu subaa wasaare bi incha allah dinaa dinaa fay ci abiyaat yi bu baax a baax a baax fay maa ngi jégalu bu baax jërëjëf di saare ñëpp nag jërëjëf sëñ xaadim ñaan ku fi teew yàlla yàlla fay sa aajo amiin amiin jëf jërëjëf sëñ Youssou Ndiaye xel day fattu sëñ Youssou ak mbooleem kuréel bi yëpp ñu nekk Touba ndeysaan sëñ Galas mu sëñ Mourtala sëñ Galas waaw mi ngi yónnee mu yónnee na message léegi ndeysaan te sëñ am barki démb maa ngi fii sëñ Mourtala jumaa di waajuram jekki-jekki woo ne ma sëñ Mourtala ngi ci buntu kër gi pour ñaanal si la kon loolu tawféex la maa ngi saare sëñ Mourtala di ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal lim bëgg ci yoonu maamam bi yàlla na ko yàlla defal ndax loolu rëy la jekki-jekki gis sa dub sëñ Tuubaa mu jekki-jekki teew sa buntu kër wallaay wallaay te li ci yéeme boobu damaa jàng ba noppi wér ba am lu may wax sëñ Tuubaa wallaay sëñ Galas di insister wallaay ma bañ a jël mu ne ma sëñ Mourtala moo ne ci kër gi sëñ bi damaa wax li ma doon wax sëñ Tuubaa la ma wax ni ma loolu rek moo fenn. ndeysaan kon nag loolu. loolu lu neex suñu xol wallaay kebe wallaay jërëjëf jërëjëf. di nuyu soxna bu baax soxna Kumba mi ngi lay siyaar de mi ngi lay seetaan ak soppe ya jërëgeen jëf ñoom soxna Saytu xadar gi euh, jërëjëf sëñ Xaadim Kebe ñu gërëm ko bu baax maa ngi lay seedal itam taxawaayu sëñ Ilimaan Mari ku baax la ak sëñ Maxari ñoom sëñ Carno gaa yu am pasteef sëñ Mortalla Soog kalla gaa yu baax yi nga xam ne ni fu ñu gesu gis leen ak sama xarit bële président soppe euh, yi maa ngi koy nuyu baax a baax a baax mm, maa ngi sëñ Abdou Guèye maa ngi koy nuyu euh, di nuyu sëñ euh, Abo Mbacke Basirou Mor nuyu naa ko maa ngi nuyu sëñ Abo Mbacke Basirou Mor tabarkala numéro sëñ Ilimane nag ku bëgg a jot sëñ Xaadim Kebe mën ngaa woote ci 76 834 74 28 76 834 74 28 sëñ Fallou Tine ma bàyyi leen nga tàggatoo ziyaare mbokk yi lay teewlu Euh, li sëñ Ablaye Diop Bichri wax rek moom day jël téléphone temps yële dama jël sama téléphone woo ko ñuy waxtaan ci njàng mi ak ni muy doxee mu ne ma dama leen a may li ngeen ma gis rek maa ngi sàkku ci yéen ngeen woo ma téléphone waxtaan loolu ku woyee fa ko man te baax te moom murit la ndax waxtaanam euh, fooy waxtaanee sëñ Tuubaa mooy njëkk a daanu yëkkati addiyaam joxe euh, muy koo xam ne li muy jàng da ngay xam ne lu mu yëg la ñu bari sax dañuy jàpp ne waa tubaarkàlla réew mi rek moo demee noonu waaye yëg lu muy yëg la Euh, man nag tur yi mu ci fexe moom ba moom ko moom légaliser ko moom dem ci mairie signé légaliser ko jànkatu borom jumaa ji kooku moom tubaarkaala war nañ cee dem assemblée générale euh, sëñ Fallou maa ngi lay gërëm bàyyi la nga nga nuyu ak mbokk yi daal di tàggatoo. ndeysaan sëñ Ahmed Dun maa ngi leen di nuyu nuyoo bi ci yéen laa koy commencé ndax da ngeen di ay kilifa yu tedd may seen rak ngeen jàpp ma ngir yàlla ak jëmmi seen Tuubaa di ko commencé ci yow jamono yee rek leen waxtaane maag yow mat na plateau nga nga nga di ma soññ ci liggéey bi ak nu liggéey bi di gën di taaroo ngir yàlla jëmmi Sëriñ Tuubaa ak luy jëmale njàng mi kanam rek ak fulla jeeg fayda gi gi mën àndal lépp nga ma koy xelal te loolu bu la neexoon temps daa seer. ndeysaan mën nga koo bañ a def. fii tamit heure nu fi teewee ndeysaan bariwaa na loo xam ne ci sa jëmm ji lay jaar mhm. Touba fii ma fi njëkk a teew man mhm. Mansour laa ñëw enregistré fi waaye bi ma fi ñëwaat yow mii yaa ma invité invité bi barkeel lool wallaay ndeysaan di siyaara bu baax sëriñ Abdoulaye Diop Bisri mhm. moom it di sama mag euh, ma koy bégee ngir yàlla jëmmi sëñ Touba di sama moom sax moom mat na ma bàyyi waaw di ko ziar bu wér nga xam ne waxtaanam ci Serigne Touba nee naa ko man mosuma dajeeg sam noonu wala bu ma dajeeg moom tamit xam ma ko fu hmm. dem rek lu baax la wax ci yow ak di bégee li ngay waxtaan ci Serigne ba noppi jànkati xasida yëpp nga bëgg sëñ Ablaye Diop maa ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay sa xam-xam ñëpp ko rafetlu barke Xaadimu Rasuul dëgg la ñëpp yee nga ñi yee nga mag ñi ci Serigne Touba yàlla na Serigne yàggal la te wéral ah, di ziar bu baax surtout Baye Niass bii fi teew nga xam ne ni ko seen xaabaan waxee maa ngi koy doog a gis seen arab yi di la bégg ngir yàlla jëmmi seen Tuubaa di sàkku ci yow ñaan ndax yow bëgg nga bëgg seen Tuubaa tax na boo koo ñaanal rek danañ am ci moom yaakaar ngir bëgg nga bëgg seen Tuubaa ku la xool rek xam ne bëgg nga seen Tuubaa ndax ma asalaami nuuru yu taxiru xalbal musalli wa bihi yu maxiru salli salaatan laatu sallu saatia anwaaruha kulla jaabin qaatia loolu mënta mënta réer ñoo ngi lay bégee sunu bàyyi nga di siyaar bu baax sëriñ xaadim kebe di sunu mag ci xaside yi euh, di ko doxale nu rafet te sell ñu bokk ñoo bokk benn koñ léeg-léeg ma dem siyaar ji ngir yàlla jëmmi sëñ Tuubaa mu soññe ma ci xaside yi maa ngi ñaan saa borom yàggal la te wéral la ndax yoon wi mënta ñàkk jëwrin sin Moodu Xabbaan maa ngi lay siyaare euh, di la béggee ci njàng mu am pësteef booy jàng damay gis sama jëmm ci yow ngir ñor gim lay ñor fi ne man heure bu ma commencé jàng man xaw ma kañ laay am plateau boo xam ne nuur daarin laa ci jàng ba mu jeex fi ne damay mar-mar woo xam ne ci sëriñ bi du ma man bi heure bu ma toogee plateau barke xaadim rasul di siyaar taalibe Sëriñ Tuubaa yi fi teew man soor maa ngi lay siyaare di siyaar bu baax sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou. Moustapha. Ah, clip bi nga xam ne. min nii ilayhi xidmatun xad laa samar rawdatuhu ilal xiyaami osimat hmm. dama ne ko fan yi semaine bii falaa ume dama ne ko maag seex aboo mu seex murtadaa fa ànd ñu ne ma jàngal ma ne leen du ma jàng te am ci ndigal is am na ñu fa nekkoon man leen mukk fii moom du ma man même bu dul kër sëñ Moustapha du ma dem génn kër kilifa di jàng <laughs> di man seen tubaab mi musle moo ngi may musal <laughs> borom jaam ñi moo ngi may musal man bu mën a xew buñ ma jàngaloo ma ne ko Mbàkke daa am sa bayit wu ma wax mu wër àddina mu ne ma ku ku la wax maa ko wax maa ko wax ma ne ko yaa ko wax kay damaa dégg ci sa waxtaan yi nga ne min nii ilayhi xidmatun xalla sama tax rawdatuhu ilal xiyaami xosiba ne Serigne Touba ni liggéey na rasulullaay loo xam ne ma ngi ca rawdatu ba ëllëg lañ ci teg bët waxaan ma ci leneen ne ma lii nag maa ko wax te lii xamoo ko woon waaye lii ma la ci nettaliwaat bu ko wax fenn ah <laughs> ndeysaan ñaanal ma Cheikh Mourtada mu Serigne Fallou tamit woo na ma njabootam gépp toog <laughs> ci biir kool ma jàng xasaayit mu ne ma dama lay seetaan jëlal sama numéro jël addi ju bari jox ma loolu ci man Serigne Abdou Samad mu Serigne Soyebu daaw moo ma génn ci mbal mi wax naa ko fii wal jinni wa dajjaali wa suudaani mu jaar ci sëriñ Cheikh ka jaar ci sëriñ Saliou Guèye Badar mu yónni ma addiyam sëriñ Abdou Samad ñoo koy siyaare man bu ma toogee léeg-léeg damay am problème mu siyaare si am ndax man àddina àddina bu nu toogatee léeg-léeg danaa la jox sama téléphone xam naa ne sax loolu yaa ma jiitu ak yéen. waaye réew yëpp seen am bu ma yëg nga ne bu ma amee émission réew yëpp réew yëpp ay ñenn ñi dañ dagg seen liggéey di ma seetaan. ndeysaan man réew yëpp laa yor seen numéro réew yëpp. <coughs> ndeysaan Ndiasse Ndiasse Paris moo ma yónnee lii Ndiasse maa ngi koy siyaare dëkk fii Ndar soxna kan jees meer yam mu yónnee ma nga fa réew yëpp réew mu ci nekk day bëgg kii bu ma solalee ëllëg kii solal ma waaw ba kañ tey seen tubaab xaw ma fu mu jëm ak man man ba noppi boole kooku loo koy ñawloo. sëriñ xaadim euh, Silla yaa ngi koy tudd léegi nekk Amérique moo ma jox lu ma umee xaalis bu bari tudd nga ko léegi moo nekk Atlanta Atlanta waaw jox na ma xaalis bu bari kat ah, ci kanamu Cheikh Cheikh ngun na ngay xasaay rek bi may ñëw daane ma sama addi yaa ngi ñëwaat suba mhm. Mouhamed Dieye sin Maxtaar Silla ñoom ñëpp nekk Paris réew yëpp ah, soxna kan Allemagne dégg nga man réew yi sax du ko xam maam réew yi sax damaa dem ba du ko xam dégg nga seen Maxtaar Samb moom day jaay fii oto. ci ci ci ci waaw seen maxtaar sàmm moo seen fàllu di jaay oto bokk ci ñi may xelal ngir yàlla gimmi seen Tuubaa ak seen xaadim waaw sa xarit la seen xaadim sàmm mais yow yaay jànkatu borom jumaa ji waaw jànkatu borom jumaa ji seen ami jum man mii maay jànkatu borom jumaa ji loolu la loolu yàlla ko billaahi bu seen Tuubaa taxawee naa ne ko man mii maay jànkatu borom jumaa ji eh, seen Muntaxa Mbàkke maa wax loo xam ne ay mbàkki mbàkki nga may seetaan kër seen am sa tumb seen soye bu dama koo jàngal mu ne ma kenn mënu lay caat di tee dem ca kaw seen am sa sëñ Muntaxa fekk na ma fa nga koy jàngal ba ne ko Mbàkke dama laa bëgg bu ma ne wasalleen alalazi zajj tiba al mustafa wal muntaq mu ree ne ma ënam ma woon ko ko ci biir xasida gi mu toog ci jumaa ji may jàng mu naan ëskey ëskey googu mu daan jëf njaareem am na Mbàkke Mbàkke koy fekk ci tala laay wax dëbb ki dóor moom sëñ Tuubaa weesal na ma foofu <laughs> lu may wax ci day leer te la kat la ñuy wax di sant bu baax euh, waa mbuur yi ndax samay xarit lan Mbour fa lan ma yóbbu woon. ndeysaan ñu jàppale ma seen paap Thiam. tubaarkalla ñi may xelal dégg nga si mm. naa may wut rek. Mm. temps bi jeex na bu yàgg sëñ Fallou ndax yow. li ñi nga war a sant daa bari ndax yow da war a xam ne samay ma woon un an ci ginnaaw bokkul <laughs> waaw fi ne nii booy ay kii waaw ak sunu samay gis sax léegi da ngay kaaloo booy génn pour ba ñu xàmmee la ak yooyu yëpp gars yi mënuñ dara waaw Touba Marnaan saa dégg nga ñoom ñëpp maa ngi leen ziar daal gis naa am dégg nga imaam Xasaali mu mujj mi waaye sufaar. waaw ñëpp rek dégg nga jaaji. ñoom ñëpp daal sénégalais yëpp kenn mere moom ma dimbali ci waaw nañ ko dimbali man ñëpp laay bëgg di tudd lépp la bëgg di man daal gërëm ko bu baax a baax siyaare ñëpp yëpp jërëjëf yëpp ak taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp jërëjëf jërë ngeen ñu gërëm ko baax sant ko mu nekkoon plateau spécial kenn du Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci biir koor gi àll ba jolet li gi lay demee waaye gaaw bi maa ngi waajal beneen plateau boo xam ne ni beneen plateau la ci biir plateau yi sëñ Jibril Ndaw kale na ko kooku moom kéemaan lay doon incha allahu taala euh, ñi ngi gërëm ñi ñu àndaloon sëñ Abdoulaye Diop Bichri di ko ñaanal yàlla sàmm ko moom it nañ ko xaar tubarkàlla damay bañ a wax rek sëñ Arabi Ñas imam ñi ngi koy ziyaare waat baax sëñ Xabbaan sëñ Fallou Tine sëriñ Xaadim Kebe euh, tubarkàlla ni ma ko waxee léegi rek bi ñuy tàmbali euh, ñaanal ko yàlla defal ko tawfiix ak ñi màndal àndal ñëpp ak ñi ñu doon teewlu ñëpp ñu ngi leen di béggee di béggee bu baax a baax ñi ñi doon àndal ci liggéey bi sa ca régie ba sëñ Abdou Diouf président sëñ Daam tubarkàlla sëñ euh, Mansour Guèye sëñ Ibrahima Faye sëñ Atumaan sëñ Pape Cheikh Bey waaye sëñ Jibril Ndaw mi ngi ci kaw ba léegi daan àndandoo ñun jataay bi di gërëm baax soxna Mantulaay xel mee fattu ma nga ca réalisation bi euh, tey dafa reer a réer ba bi muy yegg si da doon soox waaye nag loo reer rek réaliser nga ko soxna Mantulaay sëñ ma borom son bi euh, tubaarkàlla ma mañaan moom it buy réer bu baax di naan kafe rek lépp dana baax di gërëm sëñ Mbàkkiyu nee na mi ngi lay sëñ Mbàkkiyu sëñ Fallu ti na mi ngi lay ziyaare jërëjëf di gërëm sëñ Abdou Karim moom itam ci visile bi taxawaay bu am solo bi sëñ Mama Thioune mi ngi cadre boo xam ne daf koo defar ngir fas ma ko yéene décorer euh, ci anniversaire bi ak bokk yi cadeau bi waaye cadeau bi def na mën naa ko jox sëñ Abdoulaye laay ji bis mu jox waaye lépp mat na sëñ Mama yéene ji mat na taxawaay bi mat na yëkkati ko noonu rek sëñ Mansour gis ko euh, ndax yow sunu diggante ak yow du du sax romb na lii loolu lépp na taxawaayu waa kenn du sëriñ bi la euh, di leen ñaanal ñoom tamit yàlla taxawu leen sàmm leen may leen ñu yeggale di leen gërëm bu baax a baax sëñ ma ma ñëwal ñëwal bisimilah eh, da ko bëgg ki kii maa ko bloqué rek ndax damay bañ gars yi <laughs> gisee ko ni leen waaye eh, tubaarkàlla ñu ngi koy sant soxna maam Bousso Mbacke eh, maa ngi koy gërëm bu baax a baax moom sëriñ Basiiru Mbacke Proxaan soxna Marème fële ca Memphis ñu ngi koy ziare baax a baax di ko ñaanal yàlla def ko ko tawféex sëñ Baye Ibra Samb jànkatu xasaayit la nekk fële ca Touba moom it ñu ngi koy gërëm bu baax a baax sëñ daam maa ngi gërëm ñëpp di leen Euh, tablo baa ngi nii rafet na loolu wax dëgg yàlla mu boole ak sama sama sama jëwriñ ji waa kenn du sëriñ bi sëñ Mama euh, maa ngi jot seen ngërëm di ko teg ci sa loxo nga santal ma leen bu baax a baax wax dëgg yàlla nataal bi ngeen boole ak sama jëwriñ ji ak kii nga xam ne mooy borom bég mi ak sama sëriñ ji nga xam ne amul lu dul moom muy Cheikh Abdou Lahad bari ki démb sama sëriñ sëriñ Abo euh, kàddu yi mu yëkkati ndeysaan ëpp na ci suñu jëm waaye ñu ngi koy ñaan yàlla mu yàgg fi loolu ci wér di leen jox dig daje allah naa leen lay laal maal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah sëñ bi. jërëjëf waftax lana kulla baabin amiin amiin. saalihiina min xayraat. amiin amiin.